asalaamu aleykum jàmm ngeenam asalaamu aleykum ku ñëw na bës te ku ñëw na bës te Gambia ak Sénégal affaires yi may wax si bokk na si paa bi gaañu nii paa imam bi ak yeneen yoo bugg a wax yokk ne moo ne di di di ne ci internet di fan yi gis ngeen lii fa xew Gambie bu yàggu de beneen paxaab imaam fa jékkee-jékki ñu ne fa xaru xaw ma ndax moom tamit ndax moo xaru wala fañ ko rey dégg naa ko woon ci xibaar yi ñu ne fa xaru bu yàgg xam naa ko amoon na gàmbi kay bës leen te séddoo jërë ngeen jëf ku ñëw na bës te séddoo rek fa ay koreen affaire yoo bëgg ñu waxtaan si bës leen te séddoo su ma paree danaa ubbi line yi koy dugg dugg waaye ku dugg bu mu yàgg de te ku dugg nag xam ni muy waxee bu kenn dugg di wax yenn wax yi jërë ngeen jëf bës leen te séddoo rek soo yi paa bi am na yéen ñoo yéen ñu bari yoo xam ne xam ngeen mbiram bës leen te séddoo ni ñi ñëw njëkk bës leen te séddoo ko rek faa xam yeneen yu ma war a wax du mbiri paa bi rek gaam bi faa ngu ne góor goo xam ko wax ci soose mbiram ma koy wax faa xam benn def ak BMTV ne xaalis bu bari moo ko réer gu ne fay fen fay fen xaalisab rakkam bala lekk ku ne bitim réew juróom ñetti junniy xaalisi bitim réew moom la lekk di tabas ñabasi nag masko hu ni linja buñ jaale hey ki a mën a fenta bon fa masko hu ni linja story bu bon feni dof yoo xam ne moo tax nit dëggu rekk am solo fen neexu de te fen boo ko defee ngay fen yeneen fen yoo xam ne mooy tax yow nga xiit fen wu njëkk wi ngay gën a fen di continuer di fen di continuer di fen ba far nit ña xam ne ngay fen surtout fenit xaalis wala fenit loo xam ne yaa ko tappale def ko anyway su ma ko su may wax mbiram danaa ko lonk waxal leen ni demee fi ne bës leen rek xàggaguma ci mbiri gune góor góor gambien yu bari xam nañ ko ñu ma ci topp fan yi yëpp ne naa ci wax bërki démb ba tey waaye ma doon xaar ba déglu vidéo bi dégluwaat ko fay fen vidéo ab soose la nag waaye fay fen laa illa kii yaa mën a fen te dof mënut a fen de feni dof la doon fen bu anyway yéen bés leen te séddoo rek xaaral ma séddoo ko gannaaw yéen ngi ne teg kenn séddoo ko <clears throat> taxawal de ma ne séddoo te xam nga miinu ma séddoo xam nga naka lay def taxawal de maa di kàtti ka daa koy Facebook laa ko doon séddoo subhanallah lii fa daw yaram sax you yi may wax nii yi may wax nii soo mu xàndut ak reesa bés séddoo rek gi ngeen paa bi gaañu Sénégal nii ci géej ga fa beneen pa imam bu gaañu Gambie bi ne fa boppam bu yàggul nii yëgu leen ko ñu ne fa boppam man ba ko yëgee maa tiit te ruus ba te jaaxle ba bugguma ko ak débat paa bi kenn xamul ndax ko reyam fa rey waaye gi ngeen Angleterre gi it nataal naa bosam fa am jigéen joo xam ne barki di semaine yàlla ñu ngi koy bu matu semaine léegi teewu mat ko moom it fa dugg ca ca ca lifin ba ndox ma Angleterre lifin ba jigéen ji wut ci wut ci jëkkatam ak ñaari doomam fa àndoon ak xajam bi ci suba di doxantoo xajam bi ci ci ci ndox mi ne ci gannaawam noonu mu ne ci pegg ndox mi noonu foofa la dugg caméra ya gis nañ ko police ya gis ko kenn xamul lu tax mu dugg fa nag fa xaru xam naa ne xut ñu ngi koy xut sa ndox ma nag gisuñ ko te xamut ak jëkkëtam problème jëkkëtam mu ne amutama problème mbokkam yow ñu ne masta wax mbiri problème nit ñi fa ñuy xaru ndax fa ñu xamee naqar wu yàgg wala lan wala nit ñi you know paa bi paa bi dee nii nit ñee ko reyam lan Sénégal I don't know waaye ñaan leen rek waaye ni ñi fa ñuy def nii de nit ñi nit ñi nii fañ koy def de Sénégal nag moom fa xam ay gune yuñ sàcc bu yàggu nii ba gune ya feeñ yëgu ko gune ya yàllaa leen dimbale mu feeñ ñu feeñ gune yii fañ leen fobon bu yàggu doondooy bës leen te séddoo rek jërë ngeen jëf ñuy kuy bës ak séddoo yëpp jëre ngeen jëf <clears throat> jërëgéen jëf thank you so much faxam gune yii faxam ku leen sàccoon ñu feeñ yàllaa leen dimbale ñetti gune yu ndaw yoo xam ne ñoom ay ñetti at lañ xam ñoo ñëpp noonu lañ ko waxee sa xibaar ga de léegi ki nga xam ne moo leen sàccoon gune ya feeñ ku sordaar la ca sordaar yi Macky Sall ya fa la jóge ñi ne fa xam feebari xel soldaar buy xam feebari xel kon de président fa xam feebari xelam lan yow sa nit ñi nga leen a war a seet seetlu leen daal balaa ñoo ne sa sa nguur ga di liggéey sa nguur ga ca ca lu xem ni soldaar ñu ne borom fa xamee feebari xel ku dem fay fen kon su dee fay fen loolu baaxul sa soldaar yi seen bopp war a kaar nit ñi di sàcc nit ñi Gambie bu yàggut ak góor ak police fa doon sàcc bañ film ko sàcc mobile ab police xaw seen nguur gi la nit ñi lay yeb walla seen nit ñi fay xam ne yéen ci seen bopp ngeen a karo moo tax ñu yeb leen bët leen te séddoo man faalewuma ay ko abonné ma delloo la ko de waaye at least nga bës te man doo wax ne rek ko ma delloo la ko tax ma di la block faalewuma loolu waa at least nga poste séddoo because ñaari séddoo yi man kenn maa ko séddoo yéen ñi seetaan yëpp kenn séddoo kenn bësul yow noo mën a ñëwee si vidéo bi nit dafa wut ay abone naan naan ku abonné ma delloo la te man du ma la block du ma la block la ak wéradi waaye léegi ndax yow nag yow yow mi xañaan te ba mënoo ko borom mënoo ko séddooxal borom ba pare nga naan ku ko ma delloo warga de suma minti bi gis nga lii Sénégal ni mel ak Gambie fa jéggi dayo loolu mooy dëgg yi te président yi soo soo leen nee wàccal keneen ñëw ñu nàmm jaasi taxaw bugge tab tab bon fi ne nii kaa kii bi nu tudd sonko bi dégg naa fañ ko xajati du loolu lañ wax ne bi xam juróom-ñeenti fan luñ koy xajaka xaji nii ni kuy weer géej gi rek moo ma jaaxal fañ bañ mu jeex fañ bugg a nekk di ko xaj di ko xaj ba ba wote jot moo tax ñuy wax loolu allo fañ ko bugg a ne di xaj di xaj di xaj ba wote jot c'est loolu ah lii jaaxal na ma de Macky Sall la nguuram gi fañ bàjjota soxol waaye xaq nit ñi dañ leen dal de xaq bàjjo bii xaq fa xam de taxa dina jaru yéen yi te Macky Sall la fa ragal te ko tëggat waaye su ma naree focus wax ji ci moom rek fii la fanaan yi bës leen te séddoo rek <coughs> gune yii fañ leen sàccoon ñetti gune yii gune yu ndaw leen juróomi at xamuñ ko ñoom ñetti ñëpp xaw ma nag ndax ñoo bokk ndey baayam xaw ma nu mu demee ñu foboon leen bu yàggu tóondooy Sénégal soldaari Macky Sall yi fi ne ñooy sàcc gune Sénégal cog ña war a kaar nit yëgu leen loolu ab soldaara sàccoon gune gune yi fañ xam saas feeñ ndik lifin bi moo leen feeñal soldaar baa ngi nii ànd ak gune yi mu ngoog sol mbubbam sor daaram gune yaa ngi nii mu jiital leen ñu ne fa leen doon wëyal ak di leen nax di leen yóbbu far borom ak gaaw rek def caméra yi Sénégal de leen lijjanti caméra yi nag seen njëgi-njëgi xeesal yi baleen ko seen njëgi safo naturel yi baleen ko seen natt yi ngeen di concours lal baleen ko ba leen yépp te yéen ñépp ngeen hut caméra yi moom laa leen gisee koñ bu ne yéen waa koñ ba ngeen cotiser def fa ay caméra di mixo ne caméra yaa ngi dox ngeen di ko cet moom laa leen gisee yéen waa Sénégal nag ak Gambie ak yéen Afrique tout mu ëpp njëriñ seen xeesal yeeg seen këpp yi ngeen di concours ku gën a gudd la këpp nga ne kiilaak lal yeeg oto yeeg yëre yeeg xew yi ngeen di concours yëpp li ko solo caméra bi bu génnutoon gune yi tey ñoom ñett fa ñu ne maari maraas ba kii génnee nataal yi rek si saa si nit ña kar kar sordaar ba jàpp ko gune yi daal gis ko bu ko xamutoon nag lii du caaxaande bësal te séddoo yow taxawal ma dindi la yow nga naan nàngam sa nàngam néew ci yow fañ la jaale nga soxot te dundu metti te bon taamee ji koy xaj moo tax nga dina wax loolu te fañ la suuli bu yàgg te ngay dox waaye yow duma la faale yéen bës leen te séddoo yéen ñi doon nit jëre ngeen jëf gune yi bu caméra bi xamutoon gune yi duñ leen gis ñetti gune moos mu buub gune ya kobomba leen di dem man fu mu kobomba gune yi di leen yóbbu moom a jaaxal fa leen doon jaayam fa leen doon rayam lu mu doon bugg a gune yi man de lii jaaxal na ma Sénégal fi ne lu mel nii dëkki nigérian yu xees yële sax Sénégal a ko raw ah man de lii jaaxal na ma man nag du gaaw jaaxle si ngelaw waaye Sénégal moom biram jaaxal na ma waaye nañ leen jàpp si yàlla rek ba tey jaaxle góob bu baaxul dafa koy yokk rek na ngeen jël gune yi kar leen di leen seet. jënd caméra yi monté ko yéen ñëpp na ngeen ko lijjanti monté ko te di ko xool du Mik Soné mu ngi dox Mik mu ngi record lii xew yëpp waaw kenn ku nekk na su xamee caméra am su mënee def caméra bi machine bi ko fi caméra bi denc record bi su ko mënee def feneen fu xuuteeg néegam moo gën feneen fu mu xóolu te fekk caméra bi mu ngi ko monté buntu néegam wala buntu këtam wala yooyu ndax yàlla sàcckat yi buñ duggee fa buñ fa ñuy jël computer ba wala dara yëpp la ñuy jël doo mën a gis caméra ba lam record fañ bonta soxot de may ma juróomi junni man kay xaw ma juróomi junni bu ma lay may su ma ko xamoon may ko sama mbokk yële ca ker mango ga ñàkk wa bu ko dee wutil keneen ku la ko mën a may yàlla nga am ak jàmm waaye man xaw ma ko bët leen te séddoo jërë ngeen jë taxawal ma waxal leen fa xam vidéo bu ma séddoo bu yàggul xamul jigéen jox xam ne doomam ja biitam ba fa néew yi muy xut xaalis bu mu fajoo Sénégal gis ko suma tiktok bi ma ko fàttee nataal sax xaaral ma seen ndax nataal naa ko nit ñi naan fañ bëgg numéro boobu ndax ñu dimbale borom man numéro ba xaw ma ko jéem naa koo kool numéro ba doxut ngay kool ba sonn danaa ko taraayaat su ma ko xamee xam ne jigéen ja ca boppam la ma jox leen ko ndax nit ñi fa ñuy fen xaw ma ndax jigéen ja sa boppam moo fa ne ku kool numéro ba numéro ba ñu ngi ko fa bind ñaari numéro lijjanti leen ko waaye ngeen koy kool ba gis jigéen ja sa vidéo kool mu ne fàtte jàkkaarloog yéen su ngeen gisul jigéen ja pare ngeen jël xaalis ba di ko yónnee aa baax na na jigéen ja jàkkaarloog yéen sa vidéo kool ba ngeen gis ko fàtt mu xam ñaata ngeen koy yónnee yépp ngeen wax ko ko xanaa loolu gune gii laa fi doon koreen affaire bu yàggut gune gii nga xam ne moom moo dee ca kër wu jiyaayam yaayam tama leen ko doon koreen affaire keroog te xameexuma nataalam mooy gune gii gune góor gu ndaw gi ko xam fukki at ak ñeent deexee ca kër wu jëm dee ba deexi féeg la li jënti leen kaaboo mu leer Macky Sall yàq sa nguur gi li ngeen di ñàkk njëriñ lekk rek ni ami joom ne ci nguur rek yaag Adama Barrow seen nguuri lekk gi bés leen te séddoo rek nit ñi rey bopp bi ñuy rey ak accident yeeg ñàkk fayda dee yi nit ñi dee yëpp nguur gu bon gee ko waral ak nit ñi dund métti te yàkkamti te hëppal te dem dayo fa ñuy dawal oto di fadag-dag yi ni kuy dem àllaaxira du ngeen def ndànkam lii lum do lu ngeen di daw bay dee nii yàkkamti te xëppal rek xam nga lu tax nit ku ñuul yàkkamtee nit dundu métit fay noonu lay def fay tax nga yàkkamti métit bi la lu ne ngay tiit yola ah, yes nangam gaaw gaaw eh. boo koolee nit xëyut sax eh. hey ñun ba leen di dóor gu ne ka toroxal gu ne rey ngeen ñu ñeneen ñu def nii de ñeneen ñuy dóor di ñu toroxal bañ doyee gune ñu nit ñu mag di ko def suñ gune ñun wetuñ de di xëy suñ problème te du ngeen ko ba anyway na gune gii Macky Sall lijjanti ko kët wujji yaayam gam deexee fa ñuy fen kaa bi boo ko déggee xam ne fa ñuy fen gune gi su fekkoon fañ ñëw fekk ko mu dee ñu yónni ko dama root ndox ci guddi baayam ne ko rootal ma ndox gune ga génnee root ñu fekk nii ba mu tëdd duñ gaaw kérib képpee gune ga yóbbu ko lopitaan rek doxee ca suuli ko ñu wax ñu naan fa xaru fa takk boppam ak fañ ko nii nii ki naa fañ fañ fekk mu takk xeew boppam ak nangam lu tax wëccuñ ko nam xeew boppam noonu muur ko xoo nit ñi ñu gis ko sernde ko fañ dof lu xem ni gune gu gu rey boppam moos bàyyi ja bàyyi ja fa fen daal fa ñuy fen yaayam ma nga xam ne moo doon si ak bàyyi ja nettali na you know mbo moom mbokkam yëpp ndeysaan xam fu fu ñuy jëm lii naqari na gëmuñ ko kenn gëmu ko man sax gëwmu ko nit ñi fañ dund métti tamana fen ta bon de te soxot te lëndëm te bon fi ne nii fa xam geneen góor a gambien goo xam ne fay fen xaw ma nataalam ba moom laa gisul fi mu ne nii fa jël xaalis bu bari tappale ko li fi ne góor gi la foog na waaw mu ngi nii def boppam ni li njabuñ suuli fay fen danaa wax ci soote sax mbiram góor gi aleen ko ni maas ko kii moom moom moom moo maanaam borom télé bee ne nii kii wax ak moom moom moom masku nii pour bu ko nit ñi xàmmee te fen danaa ci def vidéo soose def ko youtube fan yi incha allahu suba wala yooyu toog def ci suma vidéo bu ndaw waaye ba tey danaa wax tuuti ci li may wax ci soose taxawal ma waxal leen kii li kii li mu wax kii mu ne rakkam la xaw a magam ku ne bitim réew ci dëkk yi moo ko yónnee juróom-ñetti junni euro juróom-ñetti junniy bitim réew daal bés leen te séddoo nga naan sé séeri eh, toos xaw ma toos xaw ma toos mi xas jeeg yi noonu dafay nopp jeeg yi de man sax fa ma nopp <laughs> taluma ko sax <laughs> toos jeeg yi muy xas yépp a leen nopp cop man sax mu ne fa ma nopp tey xas jéeg yi ne jéeg yi du ñuy sëy tafañ bon mbaam xaal la nangam jéegi bitim réew yi amul jëkkër yëpp lay xas tout suba su mu xëyee di xendu ci ñun du dégg bëccëg di ñu xas ni amu jóg mu sibutu ndekete woo fa xamul ci jéeg yi kay moo ko naq naqari taxawal waxal la léegi xam naa lu tax man yeneen nit ñi nga xam ne bëgguñ suma wax yi ñu ne maa amul jëkkër moo tax may wax <laughs> léegi xam naa ko <laughs> ak comédie vidéo yi may def dinaa dëkk bi leen takk ma <laughs> moo tax kay ñu ne ah Ami Diop amul jëkkatam wala ni ñi muy xas fañ bëgg ñu takk ko déedéet bëgguma góor gu bon takk ma de <laughs> waaye gi nga kii barki yàlla fa bugg jabar man sax you know su ma nangoon mu lonkalanteeg man waaye fa xam ko ma bëgg a takk ba pare bu duutoon loolu nobuma ko duut ne fa ñaaw de ma ko nobul rek loolu mooy dëgg waaye fay fen <laughs> su ma duggee si sa vidéo bi nag du may xas de damay xaw a xas ndànk xaw ma dafa ma ma damay xaw a xas ndànk ba xaw maa jay ne ma amee ku baax la dellu xaw maa xas ndànk waaye mu dugg di reeloo nit ak wax dëgg xam nga faale wu ma xasam yi waaye ngay reeba de <clears throat> mooy góor gi xas nit ñi noonu toos xaw ma toos xaw ma toos mu toos muñ toos moom anyway don't worry about ko soo léegi guys taxaw leen ma waxal leen góor a gambien gu mën a fen gii fen yim def gi nga nit ñi nga xam ne ngay ne Gàmbi di leen ne wala nga xaw ma ngay ne bitim réew pare di leen yónnee xaalis bu bëri pour ñu defaral la dara bës leen te séddoo leen maanaam ngaa bëgg ñu defaral la kët wala dara kët la wax ne moom lay defar fay tabax kët mu ne di ko tabaxaa rakkam xaw ma magam ku ne bitim réew kooko yónnee ko juróom ñetti junniy euro moos mu tappale xaalis ba di fen-feni daadaa yoo xam ne kii fa yebaate sax gi nga ki ko doon interview ni sax fa ko doon bugg ree xam na tamit fa ko doon bugg a ree <laughs> forcé rek pour bum ree <laughs> xam na ne fay fen <laughs> soo gisee ni mu ko doon laajee sa yow noo xamee kër gi ba ñibbi noo xamee yoon wi ba ñibbi mu ne ko ah yoon wi ah xanaa di dawal rek di dawal rek xamu woon nu may def waaye di dawal rek xamu woon fu ma ne. ku xamul fu ne di xadag dagi dawal te te tampongu gu yi boobu ba toj fay fen ci diggu guddi Afrique xamoo fa nga ne eh. illaha illallah kii nitam mën a fen xam ngeen nu mu wax na noonu la mbir mi deme mu ne moom fa jël juróom-ñetti junne lifin ya euro ya xamee leen fekk fa leen war na yóbbu banque xaw ma nu def ba xamee xaalis ba ci guddi gi that's fine loolu du problème sax waaye léegi mu ne ba xamee ba ci guddi gi xaw ma nag mu ne moto bike la xam ne ndax xaw ma oto oto fa mel ni moto bike la xam you know li fi na bës leen te séddoo bës leen te séddoo rek jërë ngeen jëf léegi raay da ba mu xamee mu ne di ko dawal ci guddi gi mu ne ok gambi boori Costa Road la wax xaw ma something like airport road wala Costa Road I don't even know mu ne xam gune góor gu ko gu ko arrêté waxul sax arrêté de fa ne rek gune góor gu fa ngëb ci gannaaw otoom bi foog naa fa ko arrêté wax na loolu waaye ko de te play naa vidéo ñaari yoon fa daal ku ko fa ngëb ci gannaaw otoom bi xaw ma dafa jékkee-jékki taxaw ndax xaw ma trafic bee taxoon mu taxaw xaw ma mu ne daal di ne ko yóbbuwaale ma mu ne kooka dal di toog ci gannaaw mu daal di dem ba ci kanam rek kooka daal di koy def nii mu ne moom sax fa ko waxoon ne fooy dem xaw ma lan lan ni maanaam bëggu ko yóbbu daal bëggul ko yóbbu daal waaye kooku ne ko dimbale ma rek ci airport bi laay dem something like this xaw ma fan laay dem la ko waxati daal can't remember that part maanaam dimbale ma boor yi laay dem boor yi nga xaw ni or something like mu ne mu xeb gune góor ga gune góor ga mu ne dana war a xam boor yi ñaar fukki at mu ne gune góor gi dem ba ci kanam teg ko loxo nii something like this daal di ne ko xaw ma génneel sa làmmiñ wi xaw ma something like this ay stupide wax daal la wax mu ne mu daal di génnee làmmiñam wi something like this kooka daal di ne ko ndax yaa yaa ngi xamee xaalis mu ne ko waa mu ne ko ñaata la mu ne ko nangam mu ne ko jox ma ko mu ne mu yëkkati xaalis jox ko léegi mu ne kooka ne ko nañ dem dawalal xawal fii xawal fii mu topp ko lu ko ko wax mu def ko mu ne ba xeegi ci benn place boo xam ne benn kër goo xam ne daal mu ne si benn néeg daal la ko ko dugal foo xam ne fa am ay nit ñu bëri maanaam nit ñi daal dafa nekk war naa jege ñaar fukki nit bés leen te séddoo rek bu leen taxaw ne yàcc rek di xoole de su ngeen bësul seddoo vidéo bi tiktok fay foog ne vidéo bu baaxul la <clears throat> because vidéo yi ma dee def te nit ñi di ma report ak difference issue moo tax tiktok su mooy def dara su nit ñi waxul dara binduñ dara lu baax fay foog ne lu baaxul la <clears throat> you understand so léegi um, mu ne mu ne ba mu ko yóbbu sa néeg boo xam ne mu ngi am ay lu mat ñaar fukki nit daal nit ñaa ngay tux di naan mu ne man bu ma juddoo tey boo mooy first time ma gis jigéen jiy tux di naan fay Gàmbi mosoo gi jigéen ji tux di naan ak a bëri jigéen ñuy tux di naan léegi Gàmbi surtout xanaa moo masta génn masta dem Sénégambie masta génn su ko masu koo gis ci Nigérian film sax kii moo mën a fen masta gi jigéen jiy tux di naan anyway su fekkee masuta gi jigéen jiy tux di naan sax mu ne ba mu fekk jigéen ñee tux taay di naan ak yeneen nit ña daal maanaam nit yi bandi daal déglu xool story bi nu demee rek ndax loolu dëgg la ok bés leen te séddoo rek mu ne léegi ba mu demee sa néeg ba ñu daal di mu fekk fa nit yi bandi yooyu ñu tuxaka naan <laughs> eh, léegi mu fekk gu ne góor ga ko fa indi jël jël na xaalis ba pare ànd ak moom indi ko sa néeg ba ci ngalaw ak kodintu nu waxee fa mel ni ci ngalaw ndax kooku jëlee xaalis ba fa na ba ko dem waaye ànd moom indi ko ca néeg boobu mu ne yoon na fa suri dawal nañ fa mel ni genn wàlli Gàmbi yëpp daw na ko léegi yow nga daw genn wàlli Gàmbi yëpp ndig ni place ba fa suri ba pare yow balaa ngay gisaat sa kër fa suri waaye yow fukki waxtoog ñaar fekk ñib si nga gi nga yow ni nga wéradee gis nga fen li tax man duma koy def du ne du may fen waaye suma fen bëriwul fen boo ko defee surtout fen boo xam ne fen bu gudd la story bu gudd nga war a wax nii foo jaar nit ñi doon nit yëpp xam ne ngay fen ñi lay wax waaw sax fañ koy xam buñ wéree léegi yow fukki waxtoog ñaar te nga ne ci guddi fàttaliku ma ban time la wax la wax nga wax ne si la si la lii commencé di happen ci nga ci nga xeeb bu ne góor waaye ci guddi moom fàttaliku naa ko fàttaliku ma nag ndax kii laaj na la ban waxtu ci guddi bi xaay wi commencé waaye fukki waxtoo ñaar fekk yow daw nga gaan bi yëpp ak la nga wax ne moom nga def sa néeg ba yëpp taxawal ma ñu wax leen lam def yëpp de ba pare nga réer xamoo fi nga ne depuis bala ko ko tegee loxo nga ne si nga gëj a xam li ngay def ba na nga dem ba foofa ba na loola xew yëpp luñ la wax rek ngay def si seen waaw rek ngay dox because ngaa dof xamatoo looy looy def fañ la jël whatever you waaye léegi bañ si saa si bañ paree si yow ci nga dawal oto bi xàmmee sa yoonu kët te fukki waxtoo ñaar fekk nga ne coog nga nga nga ne nga ne sa kët ah, fukki ñaar ak ni mu yombee a jot ak li nga wax ne moom nga def yëpp foofa léegi taxawal moo xam ne mu ne ba mu yeggee bés leen te séddoo rek mu ne ba mu bës leen te séddoo rek jërë ngeen jëf bës leen te séddoo rek mu ne ba mu fa fekk euh, nit ñay tux ak naan ok mu ne mos tagi jigéen ji tux ak naan tux sàngara ba kerak mu fekk nit ñay tux ak naan mu ne ok ak jos nit ñi def yu bon you know jos place bu nit ñi bon daal mu ne ok mu ne am demee nit ña fecc loo ko depuis les musiques ne ko feccal mu ne muy fecc <laughs> foog naa fa waxoon ne nit ñi fa ñuy fecc waaye foog fa bàyyiwuma loolu xel fooguma ne wax na loolu fa ne daal dañ ko doon fecc loo moom something like this xaw ma la nit ñi dañ doon fecc xaw ma bës leen te séddoore jërë ngeen jëf xallo maa si jàmm bës leen te séddoore bu leen nekk ne yaa ci yàccaaral ni ay yomb yu ñoru ni ay yomb yu ñor kay xam ngeen yombam cereeg yomb ak neex <clears throat> te si yaram léegi mu ne ba mu ne bañ ko fecclooyee <laughs> te gi nga moom ba nga xamee ne fay fen mooy masque bu mu sol nii fa sol masque ni linja bu gudd nit ñi xàmmee ko muy fen ba pare ak ni muy waxee rek xam nga man nit rek laa ku ko gis ne fay fen man sax ñi may wane naa ci wax yëpp ñu ngi ma naan kii fay fen ami de ma seet ko fay <laughs> ne leen danaa ko seet ma seet ko ne xaw fay fen kay bës <laughs> leen te seddoo rek xaalisam rakkam bala lekk juróom jin junni euro tax muy fen fen yu rëy yi niti Afrique yi rek léegi Gàmbi la li xewee de léegi ba leen te séddoo rek léegi ba nga ko defee mu ne nit ñi fecc nit ñi nekk mu ne ñu fecculoo ko ne ko fecca muy fecc mu ne xaw ma lan lan lan you ñu ne naa fecca you ñu ne naa nangam nangam ba pare mu ne ñu daal di ne ko duggal ca cabinet ba ñu jox ko ganaar ne ko rendi ko mu daal di rendi ganaar ga ñu dal di indil ko njaq as njaq daal maanaam mu ne mu ne fa mel ni guy garab la taatu garab gu gu goo xam ne dafañ ko gas fañ ko luqati nii ba mu xóot mel ni leket daal maanaam xett ko def ca deret mu ne waaw mu ne ñu daal di koy jox deret ja ne ko mu raxasu sax mu ne mu daal di raxasu sa deret ja ba pare bëggee a wiccax loxoom bi ñu ne ko bu ko wiccax fomp ko sa bopp bi kii nit mën a expliquer te dafa dof nag li muy expliquer fa ko waroon a bind calculer ko ba def boppam nit boobu gannaa fa bugg a nekk criminal waaye ndax fa tëb rek danaa leen wax ni ma foog ne noonu la lii demee afta suma pare ok bës leen te séddoo rek He's my brother even in Europe. His brother even in Europe is jail stop hey get out bro bas brother bi su jëlee yëpp danaa la wax li ma foog ne moo xew su brother ba jëlee terewul ne fay fen yow doo tukk nga naan ma his brother even is jail su brother ba nam xamee xaalis ba bañ tëj ko yaa ko xam léegi anyway taxawal ba ma wax la yow li ma lay wax ba pare yéen ñi doon nit te seetaan nit ñu wéré di ñi nga xam ne gologul lakk ci daay gu ne moo leen di nax di ko wéruñ bës leen te bam ko defee mu ne ñu daal di ne ko raxasooxal deret ja mu raxasoo deret ja mu ne dereti nit mu ne ñoo ñu ne daal di ne ko bul wiccax sa loxo yi boo raxasee deret ji fomp ko sa bopp bi sa kawar gi mu ne mu daal di koy fomp ci kawar gi mu ne su ko fompee ba deret ji di di yol ci xarxanamam bi nii ci boori pegg ba kanam bi ñu ne ko su ko buggee fomp def nii yëpp la doon wane ci vidéo bi ñu ne ko déedéet bul def noonu wëcci ko noonu rek mu roogaat ci kanam gi <laughs> loolu yëpp lu ci def anyway ñu daal di koy wëcc mu ne mu daal di wëcc deret ja muy rogaan mu daal di mu ne taxawal de paree gudde gannaaw bu ko deret ji sangee ba pare nag foofa sala ko ñoo ñu waxee ne ko ñu ne ñu ñëpp mu ñu ñëpp sa lañ ko waxee ne foog naa gannaaw bu ko deret ji sangee la wala balaa deret ji di ko sang waaye xaw na ma ni gannaaw bu ko deret ji sangee la ah sala ko ñoo wax ne ko fa xam ku lay kool si sa téléphone bii xam na ku lay ñëw kool si mu ne ah ñu ne ko waaw ñu ne ko takku lay kool si nii lu mu la wax rek nanga ko def déglu leen li may wax nii de mu daal di ne waaw déglu leen rek li ma leen di wax nii kii fa yab nit ñi yéen du ngeen noppaliku fen mënu leen a fen wéru leen fen du caaxaan de ku muus dëgg ko mën a def anyway mu ne ba bañ ko nee xam na ku lay kool si mu ne waaw mu ne ab jigéen ab tubaab kool ko déglu hël de ba ko jigéenab tubaab ba koolee jigéen tubaab ba mu ne ne ko daal di ne ko defal taati neen génne sa xawra yi subhanallah barki salaatu faat nga ki waxee loolu maa réew bu ko sëbël sama bopp fi ma toog di déglu programme bi <laughs> mu ne jigéen tubaab ba ne ko génneel sa awra yi ma gis ko something like this you know just <laughs> ma sa awra yi yes su meekul mu dem su meeku defal nii defal naa you <laughs> fa xam ko xame ay vidéo taati neenam di ko balaag mil loolu laa foog mooy number one li ma foog waaye dinaa wax leneen li ma foog ma pare bés leen te séddoo rek mu daldi ne <laughs> ba loolu yëpp xewee sa lañ ko ne waa fi ne demal paree na ñoo yow mu ne mu daal di xaw yoonam dem te fekk nag mu ne xamul lu muy def xamul ci lum ne maanaam daal lu ñooñ luñ ko wax rek lay def léegi kon moom ba muy ñibbi ñoo fañ ko war na topp naan ko xawal nii koofal nii xawal nii koofal nii ndax du la mu tampon guy yi dee konoon de ma gëm ko parce que si diggu guddi la lii xew gam bi xamul làmp seen mbedd yi xamul làmp benn làmp boo gis danga dox ba dee doo gis beneen bés leen te séddoo rek te mu ne foofu fa sori te ruqe te kër ga fan la mu ne <laughs> kii moo yabaate rek ba tax muy wax nit ñi kii nit ñi la yab ba tey mu ne moom du la mën a wax kër ga fan la waaye xam na nu nu mu delloo këtam moom ci guddi gi gannaaw bu ko ñooñu defee lañ ko def ba mu ne ñooñu fañ ko xattan xaw ma lan xamul nu muy def ba tax muy def taati nee na ka def jox leen xaali baaka sangoo deret ak def yuñ ko wax yëpp fecca ka def yëpp after that si saa si bañ ko ne pare nañ si yow rek si saa si mu ne fete xam yoon wi nu muy def ba ñibbi mu dellu ne kooka ne ko ah yow noo def ba xam yoon wi di ñibbi mu mu xam ne lii méegu sens mu ne ko ah ma doon laaj nit ñi fukki waxtoog ñaar ci guddi gàmmi nga gis nit ñu ne ci mbedd mu ñooy laaj loolu dana xam waaye du bari de fay fen daal nu muy xamee taxaw laaj nit ñi yoon wi ak su ko nit ñi waxee yoon wi nu muy xamee yoon wi dégg lu ma la de su fekkee ne xabtal mi dëgg la parce que moom mu ne gannaaw bu mu demee këram sax fa continuer xabtal mi ba tey lu ko nit wax mu def ko daal mel ni ko doon <laughs> fa doon féeg bu dee fa doon fa doon dof dof fa doon fen moo ko tey kon lu tax na bañ ko ba ba mu génnee ca kër ga xattal ma jàppul ko ba tax muy xadag dagi tampon mango yi dee guyi mangoro yi ca mbedd ma lu tax tampon ko de bës leen te séddoo fay fen jërë ngeen jëf bës leen te séddoo su ngeen bësul séddoo kon mën nga waxee tiktok fay foog ne vidéo yu baaxul te fekk du la jërë ngeen jëf bës leen ko te séddoo ko nag dégg nga ko léegi mu ne bañ ko baxee deret ja sang ko noonu deret deret ja ne ca xaram moo defar féeg deretam wala lan fay fen deret ja sang ko mu ne deret dañ ko dañ ko riibooloo noonu sala génn mu ne ci diggu guddi gi ca kër goo xam ne mënu koo xàmmee fi mu ne mu ne koñ baag yëpp mënu ca xàmmee lenn pour policier mën a dem jàpp foofa hmm. ku ma gis story bi <clears throat> si saa si nag mu xam nu muy def ak a laajte xam këtam fan la ba war a wax nit ñi fa dëkk bañ wax ko ne xawal nii xawal nii jërë ngeen jëf bët leen te séddoo rek man réer mi bañuma ko de ak lim dof ba xamul lu muy def di def taati nee naka rendi ay ganaar ak sangoo deret ak yooyu yëpp faalewuma loolu de waaye léegi si saa si nu ma su fekkee ne moom mënta xàmmee kët ga dof na ba xamul kët gi kamoon gars yi bu leen wax ne Ami Jóob fa yabaate li mu wax naan kii fay fen xalaat leen li ma leen wax rek ndax yéen ngeen a dof ñaata at ngeen xam léegi moom su dofee ba mënta xàmmee këtam ba war a laaj nit ñi nu muy xamee adresse am ak koñ ba mu dëkk ba di ko wax nit ñi for exemple bu dee man la ma ne leen ta tànje koñ nangam laa dëkk wala euh, London na koñi Modou Moussa laa dëkk tey man su ma réeree fii tey loolu dal ma li ko dal su ma génnee ci ca kët ga mënumaa xàmmee kët ga because ma maa ngi jaxasoo ba tax ba tax may wax nit ñi ne xaw ma kët ga duma la fa mën a yóbbu xaw ma sax koñ ba <clears throat> munu ma sa fàttaliku ok léegi man nu ma xamee suma koñ bi man ami ba xam koñ ba ma dëkk num tudd ba nga war maa wax ne xawal nii nii te xaw ma koñ bi ma ne xaw ma ci lenn gàmbi gu tuuti googa te koñ ba soreewul noonu xam nga tax ma wax la ko nu ko doon fukki waxtoog ñaar du mën a xeeg si xaat këtam te mu ne ci guddi lañ ko jàpp ci guddi la ko kooka kidnap ci mbedd mi ne ko dimbale ma wàcce ma ba dem nangam mu xeb kooka di seem guddi gi mu dem mu ne foofa sori dem na def fa taati neen fecc na fa rendi na fa ganaar sangoo fa deret def fa lu ne te guddi gi xaaju kenn mësta gis fen yu mel nii nit ñi dee fen te wéruñ fañ mel ni feni Macky Sall yi xaw ma Macky yi ñoom Macky la Sonko feni Adji feni dof la moo feni góor gi yaayam fa xam nit ñi fen te mënuñoo du pour caaxaan de fen du pour caaxaan de fen yoo xam ne you know serious issue la nga koy lijjanti jàng kosto di ko ay xat bala ko def bind ko doo tëb rek te ni ko dox de ni ñi fañ lay xam nit ñi xanaa fañ dox yow yaa yow ni ngay xamee xel pour fen ñi koy déglu noonu lañ xamee xel ñoo la ëpp xel sax yow ngaa fa ne yow kenn rek a xam xel pour plan fen ñiy déglu fen yi ñoo la gën a wér xamoo loolu lu tax ni ñi duñu xam loolu moom ma jaaxal noppaliku leen jos def jaamu rek moom laa leen gisee surtout fen yu ànd ak xàq borom fa lay yàlla fa lay weer xàqi borom a lay dal anyway ba ko defee mu daal di fen loolu yëpp ak ni muy waxee sax boo ko gisee you know just kii fa ko bëggoon a ree sax ma ne la vidéo baa nga fa waaye vidéo soose la uh, mooy problème bi waaye vidéo baa nga fa de mu nga VMTV ci YouTube ba <clears throat> it is not true I mean if you are saying what he's saying is true it's not true at all I don't care you are his family member or you know him or you just citing him he he's not telling <clears throat> not just me, a lot of my followers know he's lying. They tell talk about it for the last two days. He's lying. You're not well if you think he's telling the truth. You're not well. ku foog ne kii li mu dëgg la wéroo soo jarul may xuloo ak yow wéroo ngay fenn wala wéroo I swear to God guys léegi mu daal di ne taxaware ma continuer paree gudde mu daal di ne ba bam sangoo xoo deret sangoo deret ja noonu daal génn xamut fu muy dem kii ne ko noo def ba xam sa kët mu ne ah xanaa di dawal rek di dawal rek ah, xanaa jàpp si yàlla di dawal rek yàlla ma dimbale ba si kanam mu xam ne loolu du make sense gannaaw mu ne xamul lu muy def mu daal di ne ah kon nag xam nga ne kon ma naa tampon garab wala nangam xal du mu daal di ne ah si laa laaj nit ñi soo xam nga sa adresse <laughs> ah! wonderful you know your address aren't you smart anyway soo mu ne ba ma xëy géej katam mënta wàcc yaram yëpp a dee mu toog toog lu ma genn wàllu waxtu ci ci ci mënta wàcc ci dugg këtam ci oto bi xaritam romb ko ne ko lii lum do mu daal di ne patt yuur ko kooka rombaat ko ne ko yow lii lum do kooka daal di koy dimbale mu dugg ca biir kër ga ba mu demee tëdd sa buntu néeg ba waaw fanaan sa buntu néeg ba ay juróom-ñeenti waxtu ci suba ah mënumaa jóg ba juróom-ñeenti waxtu suba si laa sag a jóg nit ñi gis ma naan ma lii lum do something like this explain ci daal ma dem ca biir néeg ba ah ma xool gis suma yaram yi xaw ma benn gaañu nag xool mbaxana mi xool fu ne dindi mbaxana mi xool gis ne daal xam nga benn gaañu ma ne ah man de lii lum la eh, nangam ak i nangam ma xaw a tiit nag ma xaw a jaaxle ne ah man de fa xamuma dal nangam nangam waaye ma ne kii soo gisee ni muy waxee nga xam ne fii fen ak maskam bi lu muy masque ku lii dal moo juróom-ñetti junni xaalis yi bitim réew sa rakk ñu sàcc ko ci yow danga masku nii fay fay lu muy maskul mel ni ku rey nit léegi mu daal di jaxase yëpp daal di ne ba nangam ak nangam sala ko mbokkam yi jox yaayam mi ne mbokkam yi jox ay garab mu sangoo mu ne sala xaw a tane xam lu muy def tuuti waaye mu ne ba tey boo ko waxee ne ko defal nangam daal fa koy def fa mel fa xaw a jaxasoo ba tey fay fen ku jaxasoo dana mën a fen fen yi yëpp daal di fen ay fen yu ñàkk fayre daal lémbale taaj juróom-ñetti junni ya demee noonu juróom-ñetti junni rakkam léegi mu dellu wax leneen rakkam xaw magam daal mu ne moom càmmiñam ji nga xam ne moom moom xaalis boobu gannaaw bu ko lii dalee kooka sa lañ ko jàpp tëj ko bitim réew gi te kooka mu ne foo kookaa ko wax ne ko mu ne moom gannaaw bu ko lii dalee fa doon gént maanaam su waree nelaw daal fay dégg mel ni fañ koy fu mu toog fay ni fañ koy xoo su waree nelaw dégg ñu di ko xoo dégg ay tànk yu dox mel ni riir mu mel ni ay riiri tànk ci néeg bi nangam nangam mu ne euh, càmmiñam ji jàpp noonu ki ko yónnee xaalis bi ku koy tamit fa fa mel ni kuy dégg ay riiri tànk nangam nangam yàggu rek si lañ ko jàpp bitim réew mu ne laaj na xaritam yi lu tax ñu jàpp ko ñu ne ko xaw ma lu tax ñu jàpp ko bës leen te séddoo rek jërë ngeen jë xaw ma lu tax ñu jàpp ko fay fen fu juróom-ñetti junni yooyu jógee bitim réew loolaa tax ñu jàpp ko juróom-ñetti junni yooyu mu ne kët la doon samp kët ga muy samp fu njëgi kët ga jógee ak ban façon ngi kët la bitim réew ñun ñëpp xam nañ ko juróom-ñetti junni bitim réew du caaxaan ban façon ngi liggéey la koo ko xam bitim réew gii ba defi génnee juróom-ñetti junni di la ko yónnee yow ngay samp ay kët ak a fen ca loola lañ ko tëjee li jënt ji lu mu doon def yaa ko tey anyway taxaw leen ma waxal leen nag lu tax mu mbubboo ne fañ ko doon bugg a lifin fañ ko xabtal bës leen te séddoo rek danaa leen wax lu tax mu mbubboo xabtal mi waa jërëgéen jëf yéen ñi bës te séddoo yëpp jërëgéen jëf fa xew Afrique surtout Gambie ak Sénégal ak yeneen dëkki Afrique yi loo dëgg la moo tax mu mbubboo ko gi nga xabtal mi wax naa leen ko bu yàgg you know ay waxtu ci gannaaw ne leen man suma benn doom yu mag fañ ko xabtaloon jël téléphone ba ak suma téléphone yi te suma doom yu mag boobu ñépp a ko xam du tappale du fen dafay liggéey di wàcc am xaalisam kenn du ko yeb di wut ku mën a tappale ku mën a fen nga ne fay fen te lim ko dalee ñëpp gis nañ ko lim ko dalee mooy fa jógee woon ci kër suma beneen doomi rakk gi ku hmm? jógee ci kër googa wala mu di fa dem xamee mobile am moom mobile boppam de nii di dox parce ñaari góor ñu sol xaftaan waaye góor ñi nag góori gan lañ duñ góori Gambien duñ góori sénégalais fañ mel ni ay suusu wala yooyu yeneen xeet yooyu bés leen te séddoo rek jërë ngeen jëf susu wala yooyu yeneen xeet yooyu day ñëw Gambie ak Sénégal noonu you know waaw mu ne ñu tasee moom daal di di ko laaj laaj mel ni ku koy laaj kët ay kët wala ay koñ daal ma ni mel ni ku koy laaj nooy def ba dem ci tali bi wala nooy def ba dem Serekunda walla nàngam jos mel maanaam bu ko wax ak moom bii tànje foofu de mu nekk di leen jëm a waxal ngay xaw nii def nii mu ne rek kenn ki jë ngëb loxoom bi nii loxoom bi la ngëb ndax mbaggam bi la ngëb something like this laal ko daal rek mu ne si la xalamee ni xamatul lu muy def kook ne ko ma sa lii sa téléphone la ma sa téléphone mu jox ko ko nii mu def ko nii seet ne seen kër xam na beneen téléphone mu ne ko waaw mu ne ko dama indil ma ko rek mu daw si dugg sa kër ga ne su ma rakk xamal ma sa téléphone bi ku ko lan la mu ne ko fa xam lu may def fa xam ku may kool mu fenal ko lii billahi te kooku duy fen fa ci rusoon ba bëgg a xaru rekk kooka jox ko téléphone ba rek mu daw yët ko kële ak bosam yëpp jox ko ba pare ñooña dem mu toog toog ci toog ci suuf nii mel ni ku tiit xamul xam na ne something is going on loo xam ne is not right waaye mënu si dara di leen xool nii ñuy dem mu toog ba si ba mu yàgg ab diir loola dem rekk mu jóg xool xool xool daal di fàttaliku lu xew yëpp nag mu ne leen ana góor gi ana góor ñi ma doon waxal fii dugg ci koñ bi laajte gisu leen fi ñaar ñaari góor yi sol xaftaan ñu ma doon waxal fii léegi ñu ne ko waa gis nañ leen kay ñu nga dem xaw nii lu xew mu ne leen way yóbbu nañ sama mobile daw di yuuxu ci koñ bi ñëpp di daw di yuuxu di wuti góor ña gisuñu leen ñu ne maari maras ne mes loolu moom xewoon na ay xat ci gannaaw yàggul ci suma jarbaat boo xam ne ma yaay ma bokk ndey ak baay kon nag loolu su nit ñi dee wax ne daf dee xam nit ñi naan xamul man gën naa ne loolu xam na ndax koo xam naa ko fa dëggu du fen ci loolu te mobile bi sax ko lijjanti fay ko bu suma rakk ba ko lijjanti fay ko gannaaw lool ba pare moom ci boppam mu mu ñàkk mobile toog lu yàgg xamewul mobile bu baax bu mel noonu soog a lijjanti xamaat mobile te kook du foxanto mobile am te du jaay mobile am te du def tappale daal soxlawul sax loolu mu xam ne lu mu soxla yëpp gune gu ndaw la mu ngi sëyegut xamul doom di liggéey lim xam si yéreeg ay bagaar xëpp ak lakk du ko jeexal lu muy euh, jaay mu bàyyi di ko def wala fenn wala nangam you know ta bu mu xewee ñëpp yëg nañ ko daal laay maanaam ci digg bëccëg la woon digg bëccëg du wut guddi de digg bëccëg tànje xam nga Afrique bu digg naaj bi bu seloree nit ñi fa ñuy ci kër yi wala toog ci kër gi surtout tànje def di ci mbedd yi digg bëccëg waaw nag story yooyu la dee dégg moo tax mu use story bii story bi fay fen fam yàqee story bi mooy fa waroon na wax ne rek kooka fa ko ne jox ma xaalis mu jox ko mu dem foofa la waroon a xem kon waaye ne kooka fa ko waan koo fal fii demal fële yóbbu ko ci ak kët naan ko raxasooxal deret ak defal taati neen génnee sa xawra yeeg ab jigéen kool ko ne ko génnee sa xawra yi mu ne jigéen ba jigéeni tubaab la yéen dégg ngeen lu ma leen di expliqué nal nii wala ngeen di nelaw bind leen te wax ndax lii méeg na sens mu ne ba ko ñooñu defee nii li ma la wax nii yëpp te ay nit ñuul lañ di ay gambien ak ay jigéen expliqué na mu ne ay nit ku ñuul lañ mu ne boobu mooy first time mu gis jigéeni Gambien buy tux di naan ndax xaw ma jigéen buy tux di naan la wax tuxtaay léegi lu mu wax ne jigéen ji ko kool ni jigéeni tubaab la jigéen ji ko ñu jigéen jigéen ji doon waxal fii mu ne jigéeni tubaab la kon xam nga lu ma foog ne moo xew ah? gis nga jigéen ñi dee mel ni tubaab noonu te duhuñ tubaab piir sax wala ñenn ñi duhuñ tubaab sax fa ñu amee nataali tubaab ne ci internet bi di jël nit ñi seen seen nataali taati neen maanaam Facebook ak yooyu di jël nit ñi seen nataal nax leen ba jël seen nataal taati neen ba pare di leen fayee ko xaalis bu bëri di leen wax ne soo ma ko joxul ma weer la mën naa xam ñu ñoo xam ne vidéo moo tax muy fen-fen yi yëpp pour léegi su vidéo génnee nit ñi ne ñële ñoo ko génnee ña ko recordoon dégg ngeen li ma leen di wax benn ñaareel ba mën naa xam moom moo xam ay xariti bàndi dem dugalanteek ñoom far ñu ña sàcc xaalis bi fekk mu ngi fa newoon di wax di di màndeeg ñoom ak a def ay jikkoy xajam di fecc ka màndi dégg nga li ma la wax ba màndee nag mën naa xam vidéo yi mën na seexaan fekk mu ngi màndi xamul lu muy def ñoo ñëw vidéo ko wala mu nangu vidéo yi bi ko fa màndee woon wala something like this wala ñoo ñu xamee kenn si ñoom xamee vidéo écoute bi benn jigéen la écoute bi jigéen ba fa am ay xariti bandim moromam ñaar ñett wala you know nangam something like this ñu amee seen néeg di tux di naan di fecc xam nga Afrique loolu lañ xewal léegi xamee seen i néeg di tux di naan di fecc nit ñi dugg di génn góor ñi dugg di génn jigéen ñi dugg di génn loolu la Afrique xewal léegi moo tax ma ne leen yéen ñu ne ci vidéo yii di promote waxi caga ak ak manière caga ngeen a bugg a yokk ci ci ci taxal bi ci sébb bi ngeen bugg a yokk safara bés leen te séddoo rek jërë ngeen jëf allo because Afrique manqué wuñ mbiri laalanteeg mbiri xéegante Afrique manqué wuñ mbiri tux manqué wuñ mbiri taay Afrique liñ manqué mooy gëm sa bopp ak wax dëgg ku ñëw si internet bi di promote mbiri loolu nga ñëw yërëmut te suñ xàq dana la dal soo Ida dafa dugalanteeg dafa am ay ab lifestyle bu bon bu mu doon def di ko nëbbu far nattu bi fekk ko si mballa mu dugalanteeg nit ñooñu te fekk yàggut ak ñoom xamul seen jikko ñooñu tappale ko xaalis bi mbala mu xam nit ko xamee vidéo te nit fa xamee fa xamee nataali tubaab te mën naa am sax du tubaab xam nga nit ñi def ci internet bi yenn tubaab yi ci internet bi oytu leen leen xam na beneen jànq bu ne ci internet bi it nit ñi nit you know su ma gis su ma gisee nataalam bi naa ko lonk jànqab Gambien ok xaw ma na xam naa nataalam bi fii foog naa xamee moo ko fii <clears throat> benn tubaab moo demoon Gambie holiday biital ko ba ko tubaab bi biitalee ba pare sànni ko xaritam ba jël tubaab ba nekk ak moom ba pare mu ne xaritam ba moo nangu tubaab benn xaritam nanguwul tubaab tubaab ba moo ko buggul dem sa xaritam ba te fekk mu ne moom mu ne moom moo tax tubaab ba ñëw fa tubaab ba fay fen koo ko indiw ko fa bés leen te séddoo rek tubaab ba jigéeni nit ku ñuul moo ko fa indi in général jigéeni nit ku ñuul ko fu manti doo baax na taxawal ma plog suma téléphone ñoom fañu foog ne ñoom ñoo tax tubaab yi jënd ticket di dem tubaab yu bëri yu jënd ticket di dem Afrique fañ cagata bon yow oo not fa ñuy dem fañ bëggoon a dem Afrique mu ne seen xel bi bu yàgg bala ñu bëgg a xam nit ku ñuul mu ne seen xol bi bu yàgg du understand soo léegi yow bu duhut yow sax nit ku ñuul kuñ xam fañ koy jël te suñ ñëwee ba Afrique buñ gisee keneen ku la ku kuñ foog ne moo la gën fañ lay ba ñoom ñu ci bëri because faale wuñ léegi jànq ba benn jànq bu ñuul la nii def ab këpp bu ñuul ñi gàmbee yi gis nañ ko mu ngi ci YouTube bi ñu def ko interview mu ne tubaab ba ba mu ñëwee Gambie tubaab ba fa doon wax ak moom ci internet bi mu ne place yi ñuy waxee tubaab yi noonu di caat noonu online you know ñi ngay wutee jëkkër ak jabar noonu oytu leen de yenn tubaab yi fa ñuy wax ak yow te fekk du tubaab bi keneen mooy wax ak yow mbala suy tubaab bi la sax yenn tubaab yi criminal lañ jonki lañ fa ñuy wax ak yow def ak yow yëfi caay-caay ba pare jël sa nataal yi ne la ma koy génnee ci àddina si te yow boo génnee seen nataal sax faalewu ko bi ko ñoom kenn xamul leen da jógewuñ ca dëkk ba mbala caga lañ mbala ñu ngi ci porno yi ñenn ñi def porno ñooy def loolu soo génnee seen nataal sax fañ ko faale ñooñ ne ci pono bi seen kanam bi ne fàtt fañ faale sa nataal génneel seen nataal ak seen vidéo criminal lañ te fañ miin lu bon te ñeme xàq te yab seen bopp te soxot fañ lay wax ne la fay ma ma nataal yi boo ko génnee yaa ko yëg suma vidéo yi fay ma bàyyi foox rek mbaa ma génnee sa bos te fa ñu xam ne Gambie ak Sénégal yeneen dëkk yi surtout dëkki julli di lañ moom la ñuy taget ak dëkki nit ku ñu xam nañ ne nit ku ñu dafa xam dignité te nit ku ñu duy bugg gàcceel boppam ak gàcceel famille jaral na ko dee xam nañ ko moo tax ñuy ñëw ci nit ku ñu lii wax naa leen ko nag oytu leen de bés leen te séddoo léegi suñ ñëwee mën naa xam mu nekk gune gu rafet mën naa xam mu nekk jeeg bu rafet te ñoom ñu ci bëri fa ñuy exercice defal seen yaram yi ba mu rafet suñ neexee di wax yow naan la ay love yu nàngam nangam ba tax ngay génnee ay ay ay di làcce làcce yi jàmb sa bopp bañ record la danañ la robi walla haa turki jam fi mu ne ba guneeg jigéen nga daal di tubaab ba daal di wax ak moom ci internet bi daal di ñëw ne fa koy takk si maanaam taseeg moom daal mu ne ba tubaab bi ñëwee daal di dem ak moom ca hôtel ba moom tubaab ba takkagu ko mu dem ak moom ca hôtel ba loolu rek red flag la waaw ok that's fine waaye léegi su fekkee tubaab bi takkawu ko moom mu demee moom soo tey mu ne yaayam jëndal ko mbubb jënd mu nuróolee tubaab ba mbubb ma xaw ma ndax nataal baa ngi fii taxawaree ma wut ko ba ko defee tubaab ba moom ci fa mu ànd xaritam ba mu xaritam ñu dem ca hôtel ba xaritam ba dem ba ko fa moo tubaab ba ca hutax ca hôtel ba mu ne tubaab ba sala ne daal di ne ko ñibbil mu ngi nii gu nekk jigéen gaa ngi nii moo tubaab bi mu ne tubaab ba ne ko ñibbil ba ay suba xam mu ne sa ëllëg sax xaw ma la ko tubaab ba ne ñibbil ba ñaari fan nga soog a ñëwaat ci hôtel ñibbil sa kër yaay mu ne ko ah mu ne ko waa maanaam maa bugg a firi daal ci dëkk bi te fekk tubaab ba foog naa mu ne tubaab ba mosu faa ñëw ndax xaw ma xaw ma ndax wax na loolu but anyway doo sin maata tubaab ba mu ne mu ngi jamani mu ne tubaab ba ba mu ko ne ñibbil ba ñaari fan nga ñëwaat mu ne ñaari fan ba mu ñëwaatee tubaab ba ne ko non bëggatuma ndax xama tubaab baa ko kool mu ne ne ko kaay jël sa bagaas yi kaay jël si ko bëggatuma something like this mu ne mu ne tubaab bi lu xew tubaab bi ne ko bëggatuma rek mu ne ndekete xaritam ba nga xam ne moom la àndatoon ak moom ak tubaab bi ba tubaab bi ñëwee xees ñu ànd tasee you noo tubaab bi yóbbu ko hôtel yooyu you know nangam nangam mu ne xaritam booba moo jël tubaab ba nangu ko ci moom jërë ngeen jëf bés leen te séddoo rek léegi nag moo xarit ba ñu nekk ennemi xarit ba warutoon dugalantee tubaab ba loolu dëgg la xarit ba jikkoy xaj la xamee waaye tubaab baaxu gën a xamee jikkoy xaj moom fa fàtte loolam waaye li muy wax yëpp xarit ba lay mere nag man jigéen ñi nga xam ne bu seen xarit nangoo seen jëkkër wala dugalantee seen jëkkër ñuy mere xarit ba xarit ba war nga koo mere doo mën a teemel ni moom na ngeen meloon loolu dëgg la waaye góor ga nga war a mere dabul wala jigéen ja bu dee jigéen a ko def ndax kooka moo xam ak yow affaire moo la jàmbu moo la wax ne la I love you wala man ma lay takk wala nangam dugalante yow ba pare di waxtaanee si lu yàgg for exemple comme kii seen bos moom moo la kële bitiree na la de waaye kii it bitiree na kii moo bitiree loof bi kële lum la bitiree mooy sa digganteek moom moom la jàmbu kële nag moom moo bitiree loof bi ki nga xam ne moom nga seqaloon bi ba mu dem ca kële moom moo bitiree loof bi du kële moo bitiree loof bi understand nga lu may wax soo ñoom ñaari yëpp la bitiree waaye ñaari different bitiree la waaye loolu jigéen ñi bu leen dalee surtout jigéen ñi ni ku ñuul fa ñuy mere jigéen jë bay reyanteeg moom te ñenn ñi fa ñuy def loolu ba pare continuer góor gi di wéruñ yooyu ñaata jigéen ngay war a rayanteel sa àdduna kon because góor gi da moo nga rayanteeg jigéen ñi muy demal da moo góor gi continuer di dem ak jigéen ñi xam ne wéroo ndax jigéen ñi duñ problème bi moom mooy problème boppam moo la yeb bés leen te séddoo rek guys waxuma sax kii bosam bi ko kii takkagut ko woon ba pare kii tubaab la boo xam ne fañ tasee internet rek tubaab bi di dem Afrique di di enjoy gune yi you waaye am tokki ne baa nit koo xam ne sax ngeen a sëy ba yàgg muy dem di xam jànq nekk sa xarit yeeg ku ne mu nekkal nga ne di defanteeg ñooñu di mere ñooñu ba pare naan kenn du tax tasal suma sëy bi di xëccoo góor ga lam si yow ngaa xam sëy looy xëccoo lum do li nga ne du sëy luy sëy ci yéen xamu leen sëy ndeysaan man mii ngeen gis ma toog ak maa xam sëy moo tax sëyu ma fi ne nii waaye maa ngi bugg a sëyaat du ne ma ma maa xam sëy tax du ma mos a tax du sëyaat non <laughs> waaye. maa xam sëy that's what I moo tax ma nekk di xaar you know because yéen li ngeen di woowee sëy yéen ñu si bari du sëy sëy boo xam ne yaa ngi dee di féeg di wuti sëriñ ak a féeg sëy borom fay gore ci yow respect la soo fa newut sax du xalaat def lu mu war ta def loo xam ne boo ko yëgee mer loolu mooy sëy yéen ñaar yépp noonu ngeen di def kenn ku tukki sax kenn ku newut moroom ka newu fa sax kenn du def loo xam ne bu ko moroom ko yëgee muy xay loolu mooy sëy waaye sëy boo xam ne lu neex waaye de wala kenn ka lu ko neex de kenn kay jaay waane di jaay baax te mu ngay dee loolu di ñàkk fayda ak wéda di anyway ku ko mën nga def ko bu leen ko di wooyee sëy anyway léegi ba tubaab ba xarit ba nangoo gune gi xaw ma tubaab bi fekk moom tubaab ba biital na ko kerak mu ne first time bi tubaab bi ñëwee mu ne ñu fanaan ñaari fan la xama tubaab bi ndax xama benn fan tubaab bi dal di ne ko ñibbil mu ne boobale solo doxee biit noonu la ko waxee rek xaw ma na ndax dëgg mu ne ba mu ca doxee biit mu ne ba ko tubaab bi ne bëggatuma ñëwal jël si sa yére mu ñëw jël si yére mi sala ko tubaab bi ne ndax yow xam nga ne mba ngaa biit mu ne ko biit mu ne ko waaw yaa ngi biit suma doom mu ne ko ah man kay xaw ma loolu mu ne loolu la ko mu ne tubaab ba yëkkati ay per jox ko ne ko naan ko mu daal di koy naan ba pare dem comme moom wéru lu tax muy naan per ya ko tubaab ba jox mën naa am per yu koy rey la wala def ko problème wala buy peri dindi bii lay xuuru tubaab boo xamul wax ak moom ci internet mu ñëw jàmbu la dugalanteeg sa xarit ba pare jox la ay peri garab ne la naan ko nga naan ko peri garab yooyu ba mu ko waxee suma yuur gee doon métti ñun nit ku ñuul nii lañ dofee te wéradi suñ gune yi nii lañ xamadee nu ñuy nu ñuy protecté seen bopp gi nga kii nag fa mel ni gune la waaye du gune de ëpp na fukki at ak juróom fa tuuti rek te foog naa ne kii ko jàngale de man Ami Jóob mu jàngoon mi sax duma def loolu bës leen te séddoo jërë ngeen jëf bu leen ba bës mi de dee leen ko bës rek ndax du ngeen mën a nekk di dégloo pare te bës wax moo gën a métti te maa leen di waxal li ma leen di waxal te du te yéen ngeen tayal a bës loolu du tayal rek soxor laam la time this time I agree with you mooy yow I don't care nga agri o ñàkk agri yéen naa feq yi nga xam ne yéen ñi may topp te naa feq te soxot te dundu métti te bon yéen ñu bëri te ma di leen gis fu ma nit ñi xasee ngeen ne fa fete di reex ak a laay dikk naan this time I agree with you I don't care nga ànd ak man wala àndoo ak man bul ma sa ànd ak man ba dina tukki lu ma wax rek waxal ne ami waxul dëgg loolu may wàññi yéen féeg yi la ma gis leen yéen groupe ak Gambien yu féeg yuñ jaale yi may yéen anyway yéen a koy yëg taxawal ma foo si li jërë ngeen jëf yéen ñi def seen boppu nit yépp seetaan leen maag suma xiita yi rek koo xàmmee naa ko fay dem ci palaas yi may saaga ka def yi léegi <laughs> ma foo ko sas ma warga ñor na gay léegi ndax bu nekk jigéen gi war naa taseeg ab tubaab ci internet bi ñaari fan rek matut ko tubaab ba ne tubaab ba dal di ne lay ñëw <laughs> rek daal di koy jox ay per mun naan ko laa ilaha illallahu gi nga mën story bi mu wax yépp per yi nga xam ne moom la ko tubaab bi jox mun naan ko moom ma gën a naqadi ba su ma yuur gi metti te ma tiit ci ba tey per yooyu ma cee tiit kenn xamul peri lumdo su fekkee tubaab ba fa ne yow yow dee biig nga te ñaari fan rek lañ xam mu ne tubaab ba ne ko nañ jeexal ba pare daal di ne ko yow biig nga biital naa la ba pare daal di ne ko am naan per yi mooy ne kon tubaab ba fa bëggu biit ba dañu wala lan te loolu xuurub daal wala kenn xamul soo mu ne sala jël per ya naan ko tubaab ba ne ko am am naan lii rek mu jël mu ne naan ci saati ci kanam tubaab bi kii wetu fay ak ñi mel ni moom bañu mu ne bam naanee per yooyu ba pare daal di jël yëreem ya dem xabal tubaab ba xarit ba continuer tubaab ba fekk moom biit na mu ne gannaaw ga sa la xam ne biit na mu daal di koy wax tubaab ba mu ne nangama ke nanga mu ne tubaab ba weddiwu ko de boobu xamee doom mu ne tubaab ba weddiwu ko waaye mu ne tubaab ba du toppatoo doom ja te xarit ba moo koy kool di ko saagaaka di ko yónnee ay audio yu saagaay ndey ne ko baxal tubaab bi ma jëkkër la something lay des foog naa fa sëy xarit ba nataali xarit ba sax mu ngi ko doon lonk xaaral ma seen ak naa ko gis xarit ba ak ràncangu moom it fa mel ni ak ràncangu njaale boo ko gisee gune yi daal fañ ràncante si butu ndeysaan te bugg tubaab fañ gëma di seen bopp xam naa xam naa lii xarit baa ne noonu ak tubaab ba gune yi niñ mel xam naa ko waaye lii du leen dimbale you are doing great we disagree xam naa ko waxuma mbiri disagree rek de yéen ngeen di dem fu ma nit ñooy saaga di reex ak a laaj anyway yéen yéen a koy yëg man ba ba ma ma ko si li may wax rek gi nga xarit ba mooy ku ràncan kii di ne di fecca tubaab bi ndax xaw ma you know ki ki kii moom gune jigéen gi moo ne nii ba ko defee gune jigéen yii fañ gëma di seen bopp te sibbutu mooy problème bi waaye bu leen mere trop ci seen gëmadi seen bopp gi Afrique ñoo lay yar ci nga gëmadi sa bopp di la dóor di la xas di la tuuti ba pare nag duñ ñoom ñu ci bëri duñ la jàngal wala sa jàng du mat ndax góor ñi xamuñ joti gune yi ñoom ñu ci bëri fuñ toll ñu ngi cot coti takk keneen ak a jànqate booleeg jigéen ji ñuy naqatal xaq gi di leen dal ba tax ñu gën a humu jigéen jëxit yi know su xamee xaalis yenn yi mu ngi koy defee yeneen dina nattaka jëndal gune yi lekk jëndal gune yi yére def yeneen ak yeneen jënd xeesal bu defee xeesal def yeneen daal ba du xam xaalis moom it lu mu fayalee gune yi jàng gune yu bari seen jàng duy pare ñenn ñi seen jàng yi pare it jàngal gune rek doyut jàngal ku gëm sa bopp moo raw te yow yaay gëm sa bopp yow waajur wi gune yi gis ko ci yow ngay def jikkooy ku gëm sa bopp ñu gis ko nga yar leen ci loolu ba pare di leen ko waxit gëm sa bopp du kàddu rek di gëm sa bopp non ay pointi pointi point la yoo xam yaa ko war a def ci gune gi di ko ko wax waaye léegi su fekkee ne gune yi duñ leen di jàngaloo fañ leen di door rek xas leen ba pare ñu mag ñu ne leen gaaw leen xam-xamal maanaam gaaw leen dem bitim réew gaaw leen barke gaaw leen tekki te doo leen jox njëgi ticket yi bitim réew jos ñoom ñoo war a lijjanti ci internet bi nu ñu demee bitim réew I don't understand the hate towards you you just speak the truth moo tax ñu hate ma truth bi may wax ak gëm sa bopp bi may wax ak ni ma du bokk ci seen juutu yeeg seen saaga ndey yeeg seen waxi caga yi ni caga bu lamb yépp duma ciy bokk di wax gune yi ne lii baaxut bu leen ci bokk moo leen di naqari fañ bugguma seetaan gune yi gune yi yépp topp leen su ko defee àddina si yàqu te xamuñ ne seen dooy bopp yi sax suñ wéree war waruñoo bëgg ñu mag di ñu mag taxal caméra di juutu fañ bëgg ñu mag ne ci office yi liggéey ku fi ku fi wéré di kuy juutu ku bugg sa doom taxal caméra di juutu def taati neen def doroosi neen gunee bitim réew ak ñàkk jom ku bugg loolu kan la ku bugg sa doom mag nekk ci internet bi cagatu di jaay boppam ci internet bi kan la internet bi yëpp ay caga la caga léegi jarul taxaw ci mbedd internet bi la ko nit ñi defee ku ku bugg ku mag ku bugg sa doom mag di def loolu wala ngaa bugg sa doom mag dem université jàng xam business wala xam liggéey bu baax def boppam nit xam jëkkër xam doom def boppam nit du loolu lañ bugg ñu du ñu xaal ku ñu loolu lañ bugg ah, foog naa ko de soo léegi man may dimbale seen doy bopp yi ñu ne man la ñuy def ennemi ndax seen doom yi buñ leen royee ñoom ñooy njëkk a fëgg seen deng di yuuxu fii ku fii juutu bu sa doom magee def taati neen ci internet bi ak a mandi yaa njëkk a fëgg sa ndeng boo wéree anyway man faalewuma leen bot yee yu bëri moo tax ñu xéet ma yu ne te de xam nga ñu suñu african jikko su la kenn xéetee fay meg soli ñëpp ñoo lay xéet fu tollu fay ne di yàq sa der bi ku wax lu baax si yow mu tuutil la so because man xam nañ suma story bu ma dund tamit loolu la ñuy gën a use di ma xas nag te fekk liñ dundu moo raw fañ ko ñëmewut a wax rek xoolal seen jëfin rek kan moo dund métit kan moo si xamee ji jikkooy ku dund métit ku dund métit du gëm boppam soo kan moo xamee jikko yu gëm bu leen faale man dama dee xàmme ni xëy na dee dem suma gars yi di moo tax su gars di wax féeg wax léegoo-léeg ma ne leen ñu get to help but léegi-léegi dama leen <clears throat> su fekkee ne gune yi ñu ngi def nii <laughs> aaleen gune yi rek <laughs> aaleen gune yi gune yi tubaab bi tubaab bi yi xëccoo nii faale wut leen tubaab bi fa cagata bon xaw a beneen nataalam sax laa illa paa yi tubaab yi ñëw Afrique nii ak maire yi faalewuñ leen yéen fa ñuy fen ay loof yu ñuy wax ak yëpp fen la fañ cagata bonta mën a fen ah nataali tubaab ba sax tubaab ba si boppam moom lay wut nataalam yu noonu ngeen gis ko bu baax fa ñuy fen ndeysaan waaye gune xamuñ ko wala gune xam nañ ko ba they just don't care you know they like I don't care gisoo ko tubaab baa ne noonu ak xarit ba fay fen de fay fen tubaab bii te gi nga tubaab bii ku dem ay dëkki Afrique yu dëkk bëree bëree bëree bëree bëri la dem du Gàmbi rek de ba kuli koro la ñuy wër nag fu ne lañuy ñuy dem man xam naa tubaab yi ab paxab tubaab moo ma indi fii xam naa li ma lay wax gi nga paxab tubaab yi paxi tubaab yi takk gune yi <laughs> may reewaay may gune yi ah. gi nga tubaab bu màggat baaxul waaye gi nga tubaab bu màggat <laughs> su fekkee ne ko sëyeeg yow guneeg jigéen gi yow maanaam bu ne jigéen gi yow yaay su la yàlla dimbale su fekkee paa bi feebaru lu ci bondee mooy paa bi su amee feebar wàll la ko you know waaye su fekkee dara jotu ko that's fine ok waaye yow du la mënal dara you know la mënal dara so yow yaay nekk noonu rek noboo ko waaye because noboo ko su la mënalul dara sax moo koy yëg noboo ko soo buggoo sax mu mënal la dara man su ma góor su ma la nobul ma sax nga mënal ma dara soo man am sant may sant yàlla sax li nga ma mënalul dara ma ciy sant yàlla ok das das not problème waaye nga màggatam tubaab moo ne màggatam mu jigéen la yow góor gi boo séyeeg moom <laughs> yow yaay dee yaay gën a dee dan màggatam tubaab mu góor mi takk gu nekk jigéen ñii nag seen tubaab bi màgga naa màggatul noonu te tubaab yi fa naan per nag waaye nga buñ màggatee comme man sama tubaab ba juróom benn fukki at la xamoon fekk ma xamoon ñaar fukki at ak ñeent ba may takk manutoon dara bu naanee garab it affaire ba duy taxaw daal fay lab-labi rek ni sagar bu tooy ma ne ko turki jam jaale nañ la wala ma di ko gën a xaaye sama bopp nag su waxee ma ne ko maa sibbu toog may reegal ah gannaaw mënu ci man dara kay tafa nabuma ko lu muy jëriñ di la lab-labee rek ci ngelaw waaye tubaab bi njigir la màggatu <laughs> mel ni tubaab yi ay ñeent fukki at ak juróom noonu something like this <laughs> be jaaw rek ndax xaw maa fa xaw ni juróom fukki at yooyu daal fay naan per nag fa ñuy naan per de ah kon muy fóonantee nag ni golo gu sibutu fay fen te xaaju tanob gune yi le gune yee xalku rek xëy ñun xalku nañ wala lii lum do a ah, lii rek ne coowu di foon tubaab bi le moos <laughs> xëy lii a dagg xol Afrique ñun lii a dagg xol te sedd xol yi bañ walla a ah, lii rek Chinese yeeg ñëpp di ñu seetaan xëy li ñun fuñ jëm fi mu ne yéen gune yu def leen seen bopp nit te oytu façon ngi paayi tubaab yu ñu jaale yii tubaab yi soo koy xamit nga xam tubaab boo xam ne fa xaw a gune te ba tey oytul ku da sa morom te nga oytu xam na tubaab yu baax nag tubaab yoo xam ne duñ tuux duñ naan naan sax suñ koy def tuuti ñoom ñu xam xew naan tuuti duñ fen duñ def lu bon liggéey wàcc duñ saaga duñ def lu bon di wax dëgg te bëgg nit ku ñuul racisme waaye loolu ak a naqadee xam ci tubaab comme ni góor ak nit ku ñuul gu baax naqadee xam noonu la loolu naqadee xam fañ jafe de ah del julli di ñaan bu dee ngaa bëgg tubaab te xaar loolu waaye yéen bu ngeen defee seen bopp ni dangeen xam ci gunee góor yi gune góor yi ne fii xam na gune góor yu baax yoo xam ne danañ leen takk waaye yenn it yéen yàq caas de gune góor yi du wut tubaab sax laa wax de suñ gune góor yi fa ci am ñuy bugg jabar Afrique waaye yéen a yàqal seen bopp chance jërë ngeen jëf bës leen te séddoo bu leen ne yarang rek baxee ma wax ji rek ne yàcc ngeen di bës a ka séddoo tayal ngeen te sibbutu torop <laughs> ani ami tubaab ba <laughs> tubaab ba deena bu yàgg ba màggatoon yàggu woon ci moom sax maa ñëw yàggu rek mu dàq ma ñaari weer laa amoon ak moom ma ko daan xaaye sama bopp di ko layal naan commencé bu toog sama biir day métti ne may wax <clears throat> tubaab bu màggat tuñ ya nooy tam màggat def nii ni golo gu si but te nooy woole ci nu lay fóonee te noboo ko màggat daal te ñodonk te ñaaw ni ras ni jos oh ay hate it mooy wax mu naan bu guddee boo tëddee ci lal bi kenn du la mën a gis sa bët yi rek la ñuy gis tubaab bu résiste bon <laughs> réussite nga moo dimbale par ngoor gi tellement génnee moo tax ma gaaw am kayit ah paa boobu kay beneen bés naa leen nettali mbiram da ngeen reeba de ma def ci comédie faale wu ma mbiram ma koy nettali loolu faale wu ma ko sax <clears throat> ndax ñun askan yi ñoo lay ñoo ñooy tax ba doo gëm sa bopp moo tax may jàngale gëm sa bopp. gisee fi xat yi yëpp nu ma gëmee sax bopp moo tax ma ne noññi ñu konoon dugalante naa beneen paa tubaab bu yàgg wala beneen tubaab bu am xaalis. waaye gëm sama bopp gee tax ma ne noonu ñi fii di war gaman kenn di xaar jëkkër yu baax bu kenn ñëw dafa am ku ma bugg a takk toogi leen waaw bu te borom mu ngi gis vidéo bi bu ko déggee sax ma dee foog ne ndax maa bëgg ngeen takk ma fa xam a takk ak góor ak gambien gu ma nopp ngir yàlla yónent ba yéen ñëpp jàpp leen si yàlla tabama fi mu ko defee gune yi topp tubaab yi le tubaab yi di leen biital ak a def yëpp gi nga tubaab buy ñëw Afrique bul nangu mu biital la mbala nit ku jógee bitim réew ku ne di ñëw Afrique ku ne li tax ma wax la ko mooy biital la du tax mu takk la biital la du tax mu nekk ku baax si yow taxawal ma waxal la ñun jigéen ñi nit ku ñuul nag fay yàgg a yuus biit pour pour ngëb góor ndig suñ gëma di suñ bopp geeg suñ dund suñ métit gi góor bu la biitalee du tax mu takk la te du tax mu dokku baax si yow yow la ñuy jaale nga ànd ak doom ja yoonam du ca ne su góor gay ñëw bu mu la biital def bu mu la biital de waaye di la biital ñëw bët seet ne salaamaaleykum bët seet mu biital la comme ni kii wax ne moom la demee jërë ngeen jëf bu leen di def loolu góor su la buggee su la biitalu du tere mu takk la góor gu la bugg a biital si saa si buggul la fay fen nga ne ko non lu mu lay biitalee kon ñu jaale ko yow bu la takkee sax bu mu la biital Afrique na la indi ba fii soog laa biital bu la biitalee Afrique nga dee du la indi fay fen da la indi ba pare. anyway fi ne ba ko defee tubaab ba biital xarit ba mooy beneen gu nekk jigéen gi ngeen gisoon noonu daal di kii kii nangu tubaab ba ca moom. xarit ba nangu tubaab ba lonkanteeg moom di fóonanteeg xarit ba xaw ma ba xam moom doom ndax xaw ma daal. dafa ko takk something like this di saaga xarit bële ndey nag mooy ku ñuul gi di ko saaga ndey di ko def audio yu bon di ko saaga ndey saaga yu ñaawa ñaawa ñaaw soo loolu la doon wax mu ne na ko askan wi dimbale soo waaye yu maare him maa sëyu nag moom pour mu indi ma bitim réew nga naan waaye yu maare him xanaa yow ngaa dof xanaa li tax ñii di xëccoo tubaab bi moo taxoon ma sëy ak moom gëw woon sama bopp xaw ma woon li ma xam li ma xam te bugga tukki bugga loolu ma koo faale loolu ma di ko wax mel ni koy kuy ga xanaa loolu du mooy suñu réalité yéen li ngeen man ci yàq gune ak gë jàngal gune gëma di boppam moos balaa ngaa wax ne maa bonoon yéen ba ma xamagut fukki at lañ ma may ab paa bu màggat paa pël paa bu wax moom fukki at de ba ma ko jébbali fekk ma am ak benn paa ba ñu ne fay yoom manut ma woon a héeg ñu ko doon paa ba fukki at ak benn paa bu xem ni xatam yi comme xati paa tubaab bi bu ko magut fa ñodon ras ni gongu sibbutu nit ku ñuul bu demee ba ras xamal ne màggat na surtout góori nit ku ñuul duy gaaw a ras dafa rasoon te ñodon ko ab paa bu tudd daawda daawda tudd woo duma koy fàtte mu <laughs> aka bañoon paa boobu bay julli di ñaan pour paa ba dee paa ba ne fàtt rek ne mukk du dee te booba gune gu ndaw laa waaye xam naa xelam ñaan pour paa dee ndig bañ gu ma ko bañoon anyway loolu su ma ko waree wax fii bët set <coughs> waaye paa booba bañ ma ko mayoon te judduwuma ba may xam fukki at ak ñaar keneen takk ma ko xam ne du paa waaye moom it nobbu ma ko woon waaye ñemewuma woon a wax déedéet waaye nobbu ma ko woon waaye su ma suma technique laa doon use di ko xaaye sama bopp foofa laa jàngee xaaye suma bopp ba tey xaaye sama bopp rek laa man ba tey su ma xamee jëkkër joo xam ne deful boppam nit ma ne ko su ma bopp bee métti naan paracetamol tëdd sàng di ko seetaan te fekk dara jotuma man eh, kenn du ma rey su waxee ma xóoyal tamaate luqati luqoo ko ne ko su ma ci ngant laa ne jël basaab ba sotti ko ca luq ga mu xonq ma luq ne pat lu ne laay man rek ci xaaye sama su ma koy def nag duma la wax ne ma lay xaaye sama bopp de may kaf di réemee ne dara xew soo defee dara sax mu mel ni defoo dara rek may kaf di di la wan ne man maa xami problème de maa feebar mbala suma nangam bi fay xeseen fay fay seen dëtt defar suma feeg dëtt lu xoolu ne ma dem xalaat feeg dëtt de naa feeg nangam bu métti feeg nangam bu métti def naa ko ba sonn ci sëy boobu ma noonu soo man maa yàgg xam askan wi ni ñuy def gune ak xam askan wi tax xam leen ba nga xam ne <laughs> askan wi ni ma ko xamee kenn xamee nii man moo tax man fen ma koo xam moo tax kuy fen gisoo kaa bi ma njëkk a def ne leen borom fay fen man maa xam fen moo tax ku fen feni dof rek ngay xamee jàpp sax gi nga man maa xam fen ba booy fen feni dof booy commencé wax rek may ree bay sebe sama bopp xamoo loolu ndax man ba ma doon fen fukki at ak ñaar sax xaw ma ko di fen pour wu ma nit ñi ndax nit ñi bañ may takk te suma nangu te suma nangoo dee te nabu ma leen nu may def mu ngoo suma xel dañ sax jigéeni Sénégal bi wax noonu naan naan naan kii fa dal sàcc pittax Sonko jigéeni Sénégal bu xeesal boobu tey tey ànd ak Macky Sall te ne bitim réew fii jigéen jooj fay fen Sonko bu bam du yeggu ne fekkee fa doon sàcc pittax loolu lu ci ne yow ci sa président bi sàcc fim mu ne nii àddina si juróom-ñaar nag lijjanti jënti loolu magam jëm mu xem ni moom biitam bi ni ami jóg muñ jaale te muy sàcc doo ko lijjanti nga naan yaa ngay wax ay sàcc bi tax ba borom doyeegu ne loolu laa bëggoon a leeral foo ami yow laa xaw ma lan faral de faral ma ci lan soo noonu la ana beneen lifin ma war a lon ko wax ko sax fa xam yenn tubaab yoo xam ne fa ñuy ñëw Afrique waaye boo dugalantee ñoom danga dee bëgguñ la dafa ñuy fen ngay oytu loolu mooy dëgg gi ma bañ nataal wala xamul ana baa ngi ni nataalal Samba Kabila Samba Kam mi la ñu ne fañ koy tëj ñaari xati yàlla moo ci lim sàcc nii nit ñi war ne see jàng Samba Ka wax nañ ci xibaar yi ne fañ koy tëj ñaari xat xaw lii gàcce la xaw lii nattu la lii ñaaw na ndeysaan yërëm naa ko sax fi ne te ndax wax nañ ñaata xaalis la Samba Ka sàccoon ndax xam ngeen ko xaw ma ñaata xaalis lañ wax ne moom la sàccoon lii nag na ci askan wi yëpp jànge gis ngeen nag li tax na but bu yàlla sàkk su may def vidéo xat yépp naan leen ba leen jaay drogue ba leen jaay lu ngeen war jaay surtout su ngeen xamee ay njaboot ngeen foog ne maa bari wax ak maa bon xoola fi ne Samba Ka nag ni demee tëj lu boppam dugg ci bitik di ko dajji te xam ne mu nga xamee ñaari jabar ak njaboot gisoo lii five hundred thousand la juróomi téeméeri junni ha juróomi téeméeri junni de xamul ñaata la si xaalisi Angleterre waaye bu doon butuut la bu doon ay million sax waru ko woon a sàcc gi nga nit boo xamee njaboot mu matoo sa bopp loo war a def buy dóor nit la sax bu la nit saagaandee nga man koo jàmpaaka sax man koo kurfeñ mu dee sax ngeen ni rëkk xalaat njaboot gee jabar yi xamee njaboot du caaxaan de moomatoo sa bopp waaye nit ku mel ni golo gu njaboot lu la neex def I don't garab gu la neex nga wëndeelu façon yi njëkk yooyu ku ku façon ak ñoom njaboot yërëm naa la yaay dee ak naqar mën nañ koo tëj anytime man façon góor yooyu rek lay ragal a séel góor gu mën a gaaw a xeex mbala di def lu risque loo xam ne mën nañ koo tëj man may sonn ak njaboot yi ah juróom-benni junne yi lifin la US na xaw ma euro US waaw te ñu ne loo nekkutoon first time fadaan sàcc boobu du first time xam nga sàcc lu koy def loo nit gi ngeen man ba ma fi ñëwee xees su ma xamutoon fayda hmm? konoon ma fi ma fee xamoon ay xarit yoo xam ne su ma xamutoon fayda tey def nañ ma sàcc bu yàgg gi nga bitim réew gii nit ñu bari fañ fii sàcc cot dugg ci bitig yi sàcc ay yére yu ñàkk fayda sàcc nguur gi di ko fenal ne ko pour nguur gi fayal la néeg you know maanaam tey man ma xam jëkkër da pare wax nguur gi ne ko xaw ma jëkkër mu di ma fayal loolu ba tey sàcc la di bu ko nguur gi yégee nga dee ah ngeen ne fa ne sàcckat yi bitig yi rek kay sàcc <laughs> ah. yéen professionnel civilisé sàcc yi raw sàcckat yi bitig boo ma fi ñëwee xees xam ñaari xarit yoo xam ne ndekke fa ñuy sàcc si bitig yi xame seeni doom te xamuñ jëkkër di sàcc ci bitig yi man xam nga may létt létt yi moo ma yàgg dimbale depuis Gambie létt yi sax moo tax ma ñëw fii paa tubaab ba fa ma gisee ma doon létt foofa ca hôtel ba laa ne woon di létt duut ci biir hôtel bi sax ci tefes gi maanaam gi nga boo demee Spain holiday nii ci tefes gi létt gan ñi loolu laa doon def paa ba fa ñëw rek gi ma ne fa may takk fa mel ni yàlla noonu may ñëw rek yàgguma fa woon sax jërëjëf létt yooyu nag moom laa yàgg def moo tax du may sonn maa yàgg di létt suma vidéo yi sax ma ko tàmbalee ba tey may létt ak jaay këpp këpp yi ak létt yi ma koo yàgg def di ba ma tàmbalee vidéo tey laaj ko nit ñi fii naa fi suma salon ak bopp <clears throat> te liggéey naa fi si ay salon te ba tey maa ngi létt létt bu boo ko mënee fa lay dimbale jigéen ngay jàng benn métier surtout létt waaye gi nga jigéen ñooñu fañ mënoon létt surtout kenn ki fa koy tayal sa waxee mu ne bugguma kawar yi ne suma néeg buggoo kawar yi ne sa néeg waaye danga dem sàcc létt yi boo koy def doo sonn saa woo jaxle rek nit kool la ne la létt ma jaru sàcc waaye sàcc ga fañ ko miinoon ci ñàkk fayda lañuy ñuy sàcc de sàcc yëree guneeg sàcc ay laj laj koloñ ak sàcc lu ñàkk fayda te moo tax ma di leen wax ne di leen oytu xarit yu bon li tax ma di leen ko wax man different life experience laa xam de ba ma àndee ak ñoom ñu gis leen ñuy sàcc fekk yàgg naa leen a xam ne fa ñuy sàcc ba ma ko xamee ñu naan ma xaay lii du dara nit ñi ñëpp koy def fii ñu bëri ñoo koy def ma ne leen ah lii koy dara la ñii di ko def suma kanam xarit bu bon noonu lay def suy def lu bon fa koy def sa kanam pour nga def ko ba pare fa lay wax ne lii du dara ñu di ko def ay yoon rek ñu dugal ma sa commencé buy sàccee di ma ca may rek ñu dugal ma sa sàcc ma ay sàcc yére gu nekk stupid stuff time boobu gune yaa ngi nekk gune yu ndaw you know te seen baay xam nga mu ngi woon Afrique soo man kenn ma ne fii nii li mënumaa liggéey gune yaa ngi da gune butu du ma létt ak ak butu du ma xam yónnee Afrique ñu ne ma ah fii nit ñi duñu am xaalis ni jaboot yëpp ay sàcc fii ah ñëpp a koy def tubaab sax te fekk maa ngi ñëw xeex lu ma fi xam lu ma si xam man boobu maa ngi ñëw man fii ma fee ñëw benn xat laa fi am faatu juddu balaa ñuy wax ñaari ma xam balaa ñaari xat laa fi am aadi juddu déedéet balaa ñetti xat laa fi am aadi seen diggante matu sax ñaari xat waaye fekk xam naa fi ñetti xat bi aadi juddu you wala jox balaa ñetti wala jox ñetti xat aadi juddu bi ko faatu ma fi benn xat exactly si la faatu juddu ma fi ñëwee ba weer boobu del see la faatu juddu te faatoog aadi ñaari xat sax matuñ ko seen diggante te ñii bu ma leen di xam booba gune xaaju ñoo xam boo faatu juddoogut bu ma leen di xam boo maa ngi biir faatu xam nga boo maa ngi ñëw xees su su léegi la xam nga duma ko def te maa ngi ñëw fii bu ma xamee ñaar fukki at ak juróom te xaw ma woon benn mbokk bu may wax mbiri bitim réew dara xaw ma woon dara si mbiri bitim réew man bi may mag télé sax xaw ma ko school xaw ma ko dara man yàlla moo protect nu ko doon yàqu naa fii bu yàgg ma ñëw fekk ñooñ di sàcc di naan ak tux di ko nëbb te tas buñ tasee yow fa ñuy def fen boppu nit nag solo silvissé ba xarit yu bon oytu leen ko de ni ko xamu leen lu tax may li ko xamu leen lu tax nit kuy def lu bon rek su ma ko gisee ma koy daw ni kuy daw dee kaay ma waxal leen nag lu tax del maslaa ak nit ku bon danga xam ba man ba ma xamee ne nii lañ mel fekk xam naa leen ba pare ma continuer rek nekk ak ñoom xarit ba ba tey bi ko time bu bàyyi gune yaa ngi may sonnal <clears throat> mu ngi woon Afrique waaye néewu fa dara lu bugg jigéen ak toroxal ma ma ne ci téléphone bi di jooy rek xam nga ngeen ngi jaam xarit boo waxat nga mën a xam nokki mën a xam bànneex tuuti <clears throat> so noonu la léegoo-léeg ñu ñëw ma togg yu ñoo waxtaan léegoo-léeg ñu invite ma waaye ñoom ñoo daan gën a ñëw sax si bëri man dama laaj togg suppu kànja ni wala dara ñu yu no <clears throat> waxtaan létt ko létt borom wala nangam yu no jos waxtaan njëkkite woo ñii nii lañ mel di ànd ak man nañ dem shopping nañ dem shopping ñooñu du loolu rek lañ defoon si man de ñooy xam nga leneen luñ def gannaaw buñ doon sàcc taxawal ma jeexal mbiri sàcc bi sax andeen ma wax leen leneen luñ def pour ngeen gën a oytu waaye waxuma ngeen ragal nit de jos ngeen di oytu rek danaa leen waxal nu ngeen di oytu gannaaw buñ ma buñ nekkee di sàcc suma kanam noonu buñ génnee ñu def ko ay yoon dugal ma si yàggul rek far ñu jàpp ñu loolu wax naa leen ko ci yoon ay vidéo duma koy rusa wax de loolu yëpp si jàngale la bokk jàngale feeg yaa ngi nëbbali la dal pare woo jàngal nit ndax nit fekk xamut ne lii dafa réel ndeke lii lu xam la moo tax mu dal la doo ko mën a yërëm jos lii dal na diw dal na diw loolu du tax nga dimbali nit ngay wax dëgg gi soo paree dimbali nit dëgg moo tax sama vidéo yi nit ñi di ma xas jos bi ko dama leen dee waxal lu leen di dimbali rek loolu rek a tax ñu di ma xas de fi ne nii sax dañ keneen ku ku ku xees ku ñëw dégg lii léegi te mu yut lii dima ko xasee waaye man ma leen a faale sama àq moo leen di dal rek ndax yéen li ngeen expérience moo gën a garaaw bi waaye du ngeen ko ñemee wax askan bi sax jaralul leen loolu pour ngeen wax leen lu ngeen dund pour dimbale leen xalaatu leen ko buggeeku leen askan bi noonu sax xalaatu leen ko kon léegi man mi risque yëpp pour dimbali seen doom yeeg seen mbokk yi ngeen di ma ko xasee ma xaq leen daal digg bëccëg banaa leen ak yàlla yéen ñi ma koy xasee tout waaye du tere ma wax de su ma bug bi bu génnee sax da ngeen ko gis ku mën a bind bug ku ne na ma contact maa ngi wut rayta ndax maa ngi bind waaye suma bind yi duma mën a bind yëpp correct li <clears throat> bañ ma dugalee ci sàcc sàccantu bitig mi sàcc ay yére ak lekkaloñ ak stupid stuff you know far nit ñi jàppuñu fekk maa ngi àndoon ak ñoom ma ne mu ngoog sant yàlla kenn ki ci ñoom far ma ne mu sant yàlla ñoom ñaar la woon kenn ki laa xam mu boole ma ak morom ki fekk ñoom ñaar ñoo doon xarit hmm. léegi ndekete fañ daan ànd ndekete fañ daan def lu bon fañ ma daan def lu bon di ko nëbbu ba bañ duuloo yi salama ko kenn ki wax ñu ànd ak ki morom ka far baleen ñoom ñëpp di maslaa ak ñoom after that léegi ndekete huu fañ ma daan wax ne kaay ma dimbali time bu maa ngi fi ñëw xees xam nga man bu may ñëw it fekk dégg naa àngale nag waaye mënumaa bind tax suma bind yi ma mun nii léegi mënuma ko woon bi ko gannaaw ma ñëwee fii si laa dem jàngi collège jàng ñuy bindee tuuti ak tuuti waaye time wax bi la laa gënoon a man daan bind ak léegi gars su ma waree fiil form wala war a def dara ñoo ma dee dimbale léegoo léegi wala something like léegi gars yi ne ma jox ma sa date of birth jox ma sa adresse sa tur sa date of birth sa ba si juddu xam nga loolu bu la ko ni xamalee si dëkk bi rek dee nga xanaa muy ku baax léegi gars yi ndekk dañu ne dañ may dimbale hubbi ay stockat stockat stupid stockat maanaam xam nga fii bitig yi jaay yére mu yére xale yére mag yëpp dañ lay mën a jox kii boo euh, carte boo xam ne yow da ngay jël yére su weer bi dexee ñu génnee tuuti sa banque bi ndekete yow fañ ko doon def pour ñoom ñu jëlal seen bopp ay stockat ñoom ñu jël ay mobile ci suma tur bor ba topp ma ak yu bëree bëri kenn lu luñ jël ba tey dama dee tëdd guddi di tiit si ñooñu lu ñuy def ak sama tur xaw ma ko because loolu mooy dëgg yi last time boo find out maa ngi amee bor yoo xam ne 4000 pounds laa find out ne moo nekk sama tur man man Amie Jobe te xaw ma 4000 pounds yu fuñ jógee 4000 pounds yu yàgg yàgg different things la gars yi wax ne moom la man maa contact deeb deeb compagnie yi ñu lijjanti ko ma wax leen sama tur suma sama diit baat ñu lijjanti yëpp yëpp fu ma mës a bor yëpp ñu lijjanti bor yoo xam ne xaw ma sax turi bitig yooyu xaw ma loolu kañ laak mosuma jël léegi ba ko defee gars yi di def loolu noonu nekk nekk xarit xam loolu ne pat kenn ki de tamit dem sàcc police jàpp ko time boo xamagul mu jox leen suma tur mu ngi dëkk fii ba tey te Gambien la ni man jox leen suma tur ñu ne Ami Diop la tudd nanga nanga jox leen suma détaw baat yëpp man ma xamee record boobu record boobu tax dama pour fight ba gars génne ko police yi génne nañ ko man maa ko fightal sama bopp ma police yi find out find out ba dindi ko xam ne du man gi nga loolu nu ko doon tey liggéey duma ko xam liggéey bu ma xam fii sax nu ko doon du ma ko xam liggéey bu ma doon def nii ci place yi mairie soo xamee rek kon ne ngay ñoo lay jël foofu ngay sàcc mairie seen ceeni or yeeg yooyu mhm. léegi sooy wut disclose sax doo ko xam ñu ngi fa bind ne sàcc nga soo xamee disclose sax ñu bind fa ne sàcc nga foo jëlee liggéey te sàcc boo xam ne yow yow keneen moo ko defoon ñu jàpp la ñu jàpp ko du yow léegi taxawal ma waxal la de parce que su fekkee da danga sàcc ñu jàpp la ñu yóbbu la police dafa des si li nga sàcc ñaata la ak naka la ak ndax yóbbu ndax ki la jàpp yóbbu na yóbbu na la police ndax xam nga record ak ndax police dañ lay yóbbu code suñ la yóbboo code ndax fay nga xaalis buñ la fayee loolu yëpp boo ko deful dañ koy def si sa record bi something like this <clears throat> soo léegi bañ xulooxee ñoom ñaar salaa soog a xam ne ñii xarit yu bon lañ suñ xuloowu doon xam ba tey taxawal ma waxal la lii lii dama koy wax pour ngeen jàng loolu rek la ay wetu ala gis nga ñooy su ma xulowutoon su kee su ñoom ñaar xulowutoon ñoom ñaar fañ jàmbuxante ñoomu neen bañ jàmbuxantee kenn ka def morom ka lu bon di jëw faru morom ka ci ci morom ka di di wax ak faru moroom ka di jëw moroom ka ci faram bi something like this góor daal moo leen boole far faru wi ne ko sa xarit bi mu ne yoon nangal something like this you know ba gars yi duuloo daal something like this bañ duulooxee sa la kële ñëw si man ñëppa ñëw jaxaraan pour yàq kële ne ma kii sax baaxut nangama nangam na la def ma ne ko wat mu ne ma waaw police yi fañ ko jàppoon fii mu wax leen sa tur ma nekkoon nañ dem ñu dem xàkki ko si saa si bañ demee weddiwu ko ne yaa ci taxaw waaye time boo xamul kayit bugguma kool police yi di ko delloo ma mer ba bugg dee ba kook yàlla ñibbi loolu yàgg na mu jéggi si la am kayit sax <coughs> seetal lool seetal lool soo gi nga sàcc mii du Samba Ka rek Afrique de nit ñi fa ñuy sàcc bitim réew gii surtout Gambien yu bëri sàcc lay fi nee ak Sénégal lay sax waaye Gambien yu bëri ak yeneen nit ñi rek sàcc nguur gee ka jaay taaya ka def yu bon yoo xam ne fa ñuy tëjlu seen bopp comme sa ka Samba Ka mii ak a jox seen bopp criminal record bi bitim réew gii kon nag oytu leen de yéen ñi xaritoog nit ñi bitim réew fa wéet boo xamee naqat Afrique ñu dóor la toroxal la nga xamee sa naqat fay tax nga yërëm sa bopp di xalaat ne kenn bëggul moo la nangam dóor gune yu bari noonu lay def nit moo tax ma di leen ko wax saa yu ne ngeen ma ko jërë jëf bës leen te séddoo rek jërë ngeen jëf léegi su fekkee gune gi mu ngi ñëw fii ak métitam surtout bu gune ga xamul jëkkër ju baax ndeysaan fay gën a xamee métitam rek ndeysaan mel ni ami léegi soo amee xarit boo xam ne koy wan mbugéel féeg mbugéel te fay fen na nga oytu bu ko wax sa bési juddu sa leetar yi nga xam ne fañ ciy bind bi si juddu sax nëbbu ko nit dee oytul ah nooy de buy sàcc nag wala naanaka tuxaka def yëpp boo koy xam dawal ba sa caayam maam naaw <laughs> boo fa toogee naan duma ko toppandoo bépp sa bés a ngi ñëw nga toppandoo ko ndax nit buy def lu bon soo ko jegee bu yàggee doo ko gisati muy lu bon xoolal nit ñi saaga bu yàggee boo leen di seetaan bu yàggee ngay saaga ndey gisoo aadama muy nuyoo ñaari yoon sax ñëpp a ngi nuyoo ñaari yoon ku ñëw rek asalaamaaleykum asalaamaaleykum man rek ko dul def de man bu ma toppandooree aadama ñu jaale ko woon la ñëpp a ngi koy toppandoor asalaamaaleykum asalaamaaleykum ma ne nangam nangam di ko toppandoor ci ni muy def ñoom loo yàgg gis ak di ko yàgg a dégg rek toppandoor bu lu baax ak lu bon duut wéy rek ngay déglu wéy bi mu ne ca bopp bi déedéet leneen loo yàgg a gis laaj ko expert yi soo oytu leen waaw oytu leen li ngeen di yàgg a gis oytu leen nit ñi ngeen di toogal di ñu mel ni nit ñu normal nit ñi normaluñ nit ku normal mooy nit ku gëm boppam xam émotion yoo xam ne dana ko mën a contrôle njatt filinam yi buñ ko def loolu war a def waaye nit ko xam ne comme xar filinam ya di ko def loolu ne xama filin xama maanaam mënta yar boppam daal meer ataaya <laughs> meer borom ataaya te jóor paketi ataaya yu bëri yéen meer booba kay moo meer ataaya ngeen maa bëgg a màggatloo ngeen di fen taxawal ma ñoo dagg vidéo bi sax dem wax ak suma nijaay wallahi wàcc na liggéey may warga rek faam góor gu ma bugg a takk toogi leen fële taxalal ko musique sax musique ab loof leen surtout Sénégal la yeeg Gambien yi yëpp waaw xam naa góor ak Gambien gu ma bugg musuma buggee góor yi ma juddoog tey toogi leen yoon yi kenn newu si li di dund métti tas soxot ku ko bugg a yàq na danañ jaale borom du comédie de waa baax na ba ngeen déem a dugg ci suma diggante kii rek ni ngeen di dund métti tas soxot tam bañ ma ba bugg a dee taxawal ma ñëw wut wuyu loo ma ko plee sax mobil bu baax bi <clears throat> soo loolu la kaa yi ngay wax ba dee guys xam naa bu ma seeyatee yéen a ngi xaar mu seeyaat ngir seen a danaa fa toog ak maa fay toog bu góor ga baaxee ñaanal leen ma rek mu baax bu baaxul loof bi mooy dee yéen li ngeen xamul mooy yow soo baaxul loof bi fay yàqu fay dee kayi su ko defee nga ne duma dem loof ba bu deexee nu ma fay toogee toog fa ni matt guy sëy te duma yëgati dara ngeen di yàq loof yéen a dund métti te mën a yàq lof mooy problème bi yéen askan wi tout amin sorry subhanallah la tout su ma nijaay ak yeneen nit ñu baax ñu bokkañ si wat yi fañ koy toppatoo di ko suux di def jàmm di koo wax di protect loof bi waaye loof boo xam ne ku ne nga héeg fu ne nga cot-coti aka fen aka naqadi deret aka sibbutu ba pare ne loof ba bu yàqu ay waay bañ a kaay yàqu fay yàqu boroom di ca man dara su buggul mu yàqu sa fay yàqu ki ngay toroxal su buggul loob bi yàqu sa loob fa fay yàqu xolam dul mën a tey xamee loob bi nga koo poison ba mu mhm. fañ koy suuxat di def jàmm di wax wax yu neex di wax dëgg waaye loob boo xam ne ngay naqadi di ak a fen lu la neex de ku la neex yéeg lu la neex de ba pare law ba continuer dox loolu dox mu xamut ku ko wax fay fen taxawal ma pilee woyu bile faam ak gune jigéen gu sant jóob gu koy ma ne faam gune gu sant jóob gu ma gis mu woy de ak gune Sénégal waa kile doo sum aadile konjong konjong sama biir sàmbaka taxawal ma dindi ko <laughs> maa ngi plé wayu loof te sàmbaka ngi ni soo noonu la oytu leen sàmbaka li ko daal yal na génn ak jàmm waaye oytu leen lii nii yal na génn ak jàmm nag ndeysaan naa ko sax dara du ko jot dana génn ci jàmm ma lonk sama daal yi may jaay daal yi may jaay la ñoo ñëw next week daal yi Sénégal lañ koy defaree fa baax ba bugg a def. wuyu ndogeel bu neex la fa xam gune góor gu nga koo xam ne doon liggéeyal ñu bugg koo may keneen mu lànk dem jël ko ñàkk kam nag na dëgg de. ma ne yi maa leen di jaay dàll jigéen yu rafet lañ taxaw te dëgër dàll der la Sénégal lay jógee. Sénégal la yee koy defar allo jërë ngeen jëf this time it is been good inshallah don't worry ah gonna pray for you jërë ngeen jëf foog dana ma ñaanal suma sëy bu baax bi yoon ñaanal leen ma de yéen ñu baax yëpp you are wasting your beauty <laughs> kii mu ne suma rafetaay bi yëpp maa koy tar maa koy yàq wala maa ngi koy nu ñu waxee wis fa maanaam maa ngi koy tardeel maa ngi koy I don't know like néewuma di ko use ndig lu ma amul jëkkër ah néewuma di ko wees kay su ma ko doon wees mooy maa ngi jox sama bopp góor ñi di ma xéeg guddeeg bëccëg waaye ni ma toogee nii di xaar ba loolu moo tax ma beautiful parce que xat yi yëpp maa ngi amee sama bopp di xaar moo tax bu set may gën a beautiful su ma góor ñi doon xéeg konoon maa ngi góor ñi rek ci xiir nit te seen yoon newutum tànk yi jërë ngeen jëf gunge mooy la nag maa lay gunge yow góor gu a maana hmm, moo lay takk muñ ah góor gu mën a muñ moo may takk Well, yes and no because góor góor yëpp a war a mën a muñ ak jigéen yëpp loof bu nekk moo war a ànd ak muñ yéen ñi xam loo wax leen loof bu àndut ak muñ du dox bot dugut ne ngay muñ bi ko borom fay ñëw pour toroxal la xam nga muñ yoo xam ne ngay muñ bi ko xaruna dafa naqadi wala xamee njaboot dafa naqadi wala dem xëy dem liggéey dafa naqadi wala even internet bi sax ngay muñ boo muñul ngay saagandee bu bu set you know just muñ normal life muñ loolu fa xuute ak muñu ku lay toroxal ku pare pour toroxal la moo ko tay di la toroxal ngay muñ waxuma loolu de ku mën loolu nga def ko waroo ko dund loolu kenn warul laa toroxal kenn ku ne fa war a def jàmm de you know def boppam nit ci biir loox bi kon nag du ne man may sëy ak nit di def nii de la illaa laajal sama bi bi ko may waxtaana dugub ni may waxee sama vidéo yi nii laay waxee góor de man ak wax wax yi neex ak mag megg-megg yi góor ak neex deret like sonn naa taxaw ma jëkkër jëkkër laa bëgguma sonn te bëgguma njaalaw barki yàlla noonu laa daan def guys gëj naa koo def sax def est léegi su ma ko defee dee su ma nijaay na ma rey léegi nag moo tax gars yi yëpp nag naan oh my góor kii jëkkër lay hut fa lamb man nuroo naa leen ko lamb man depuis ma du yéegule ba tey góor ñaa ngi may topp takk ma xaw ma lan fu ma wicc góor ñu bëgg maa takk nag man xama problème yi góor gu ma takk de bot comédie moo tax ma di ko de bi ko dama ñëw TikTok xees gis benn audio bu doon wër naan euh, ku ma nopp na ma ko wax ma ko waxul baaxalu ma la ko xàq ma naqadi naqadiwuma mbir comme li góor boobu fàttali ngeen ko soo ma gis jigéen ñi di ko yuus ma ne xaaral ma di or bu jigéen foofu laa jële woon idea boobu far ngeen topp ma nag foog ne maa lamboo ndooy di ma xas yéen waaye yéen a yéen su ma lamboon sax ba kenn bugguma takk kenn nëbbu ma ma lamb junni at lu ngeen ma ciy reexee dima xas su may wut jëkkër du ngeen sant yàlla ne maa ngi wut jëkkër kon instead of hubbeeku nit ñi di ma yéeg ngeen a soxota dund métit ngeen foog maa lamb noonu de ngeen tëb hee fa lamb kenn bugg ko yéen a mën a fen man fu ma wëcc nit ñi bugguma takk bu dul vidéo sax depuis maa ngi doggu ne ci ker mango yi ku du ku jinne bugguma takk laaj ko sama mbokk yi man Ami Jóob rek xaw ma lan la nag is na laaj ma dàq nit ñaa jigéen ñi ma dàq ñoo ne si askan bi waaye fu ma wicc nit ñi bëgg maa takk xaw ma lan la takk wax ne maa xamee rab fay fen jigéen ñu bari moom la nit ñi dee topp pour bëgg leen takk nag ci doyu rab <laughs> you need a very strong man <laughs> waaw dëgg la parce que dama xam xam-xami loof te dama xam xam-xami àdduna te yeneen góor ñi nga xam ne nekkuñ góor gu dëgër bugguñ jigéen ju am xam-xam wax na dëgg dañuy bugg jigéen ju wik bu mel ni ñoom wala jigéen ju wik jox xam ne xamul dara pour ñu foog ne xamul lu tax ñuy bugg dañ foog ne suñ xamee loolu si la sëy bi dox wala lan dañ foog ne suñ xamee jigéen ji am xam-xam sëy bi du dox wala ñoom duñ ko mën a contrôle waaye yi wantu contrôle jigéen ji sax contrôle bu soxot xamoon moon nañ waxante dëgg waaye bon is noonu laay jigéen ñi xam-xam yëpp ñoo dul nangu pour seen jëkkër yi wax leen dara jigéen su baaxee te mën a sëy loof la su xamee xam-xam sa ba tey soo koy xilif dana nangu waaye nga ko du xilif xilifaande yu bon yooyu noonu xilifaande yu soxor yu bon yooyu du ko nangu mbala yow ngay def sa jikko ju bon du ko nangu soo loolu moo tax góor ñu bon ñu bari bëgguñ jigéen ji am xam-xam bi ko seen jikko ju bon ji lañuy xam ne jigéen ja du ko nangu allo bébé suma nijaay namm naa la xaaral ma ñëw dagg vidéo bi la sax ñu waxtaan ah vidéo bi la tax ma duma wax ak yow boobu ba tey te moom liggéey rek kenn du mën a wax ak moom nag fay liggéey rek of sax du ko def barki salaatu faatiya time bii rek nga mën a wax ak moom balaa moo nelaw bu nelawee rek jeex man nag bugguma góor goo xam ne fay liggéey guddeeg bëccëg ba doo mën a xam ak moom time oh my god su ma xamee façon jëkkër yooyu dinaa goo crazy te doo jël day off soo ñëwee rek sangu lekk julli rek tëddi xëy demaat ba guddi non ngay jël day off ba pare oh my god non like duñ mën a def dara duñ mën a ànd doxantu ji duñ mën a def dara duñ mën a def dara duñ mën a def dara duñ mën a def dara just duñ mën a def dara non bugguma ko ni say boobu koo xam ne noonu ngay def jéemal a lijjanti def business wala dara ngeen def dara loo xam ne di ngeen mën a xam time together what do think waaye liggéey wàcc tëdd nelaw xëy demaat liggéey wàcc tëdd nelaw rek mais ni koo xam ne jubóowoo sa jabar wala buggoo xam ak moom affaire how I am interested but I am not going to pay anything because you are second hand I'm not interested you're fine I don't want you man second hand la waaye second hand boo xam ne la ma gën a baax nit ñu first hand yu bëri ma xam suma bopp man ma xam suma valeur xam suma bopp xam suma jigéen yaa xam man may kan man gune jigéen yu bari yu masta sëy maa leen gën a correct jigéen yaa téeméeri yoon xamoo loolu ndax li li leen xéeg ak li li expérience si si sax man expérience ma ko gune jigéen ñi léegi ñoo raw jeeg bu sëy ba tas li leen di xéeg ci semaine ñoom ñu ci bëri ñu xam far mu leen di pampamee guddeeg bëccëg suba ngoon ñaata xat wala di leen lembulante ay fari far yow ku la bugg ba nga naan man bëgg naa la waaye du ma fay dara ndax yow ma ngaa màggat duhoo ku xees daal maanaam yow ku la bëgg sax laa xamul yow mu xal ko moom commenté da ko ne xaaju ma laa xaajo waajo bëgg ba ngay wax man maa la wax ne golo gu ne laay bëgg man ami jóg man melu noonu de man maa la ne golo bu ne laay bëgg ma nga naan bëgg naa la waaye duma la fay dara duma fay dara nga màggat dañ lay use ba pare moo tax ma di leen wax ne duwu leen jullit xéefar yu naa fekk ngeen yéen jigéen ji sëy ba tas ngeen waroon a wut di ko takk ndax suñ sang bi ba muy takk Xadija fa sëy ba tas xamee ay doom fa Xadija ko magoon yéen guney góor jullit yëpp ngeen a waroon a wut jeeg yi sëy ba tas ni man di leen ñaan di raam pour takk leen su jeeg ba waxee nga ne ko man suy sang bi ni mu defoon laa bëgg a ma do jullit bu baax ndax du I know you want to marry ya a want to marry mën a fen ko la wax ne la man bëgguma sëy yéen guney góor yi jëlis ma nijaayam mi message di ree <laughs> mu ngi seetaan <laughs> yéen guney góor yi ak askan wi yëpp guney góor yi am ay ñaar fukki at juróom yooyu hmm? ngeen a war a wut jeeg yi xam ñeen fukki at xam nga Xadija bu amoon ñeen fukki at ak juróom jëkkatam xam ñaar fukki at ak juróom dañu waxante dëgg rek de kii sax bind na ko Xadi mu ne waa dégg Xadi sax mu ne naa loolu dëgg la mhm. yéen yéen gune góor yi xam ñaar fukki at ak juróom yëpp gune góor yi jullit yi tout si àddina si ngeen a waroon di wut jeeg yi xam ñeen fukki at ak juróom jëm kaw muy xati xati Xadija yi wala jeeg bu xam ñeen fukki at ba ñeen fukki at ak juróom ba ñeen fukk ba juróom fukki at sax diggante ñeen fukki at ba juróom fukki at jéeg yooyu ngeen war di wut nag surtout ku ci sëy ba tas ba amee doom su koo ko waxee nga ne ko su la nee yow gune nga nga ne ko déedéet man suñ sang bi nii la defoon Xadija noon noonu laa bugg a def ndax jullit la waaye du ngeen di roy loolu xam nga lu ngeen di roy ñaari jabar yi ñetti jabar yi xam nga lu ngeen di roy ay samam takkoon mu doggu ne balaa muy takk Aysa nag suy sang bi Xadija moom neexaloon ay xat ba Xadija dee masta takk ñaareel du ngeen di roy loolu yéen a naa féq te bëgg lu yomb te féeg yéen moo tax faale bu ma leen bu ngeen di wax mbiri jullit xaaju leen a du jullit su xeboo nga du tati it faale fu sa tati it seen jikkoot moom laa leen di wax tati it oo ok waaw sama wargal yi tàng na mu ñëw naan te dem gune yi de war nañoo naan warga yu warga yu ñetti fan xam na ko si léegi seen kaasa ngi simila xale moo baax dégg nga ko meer baaxul fay fen kon suñ sang bi lu mu defoon noonu baaxul ma fa ne ngeen ni suñ bi lu mu def yëpp baax na <laughs> góori soose yi nga xam ne ñoo doon xulóog man fii bu yàggul mbiram xaraf ne ba ñuy xarafal jigéen ñi loolu yàllaa ko wax ci dina islaam la ne sunna la islaam lu ci nekk yépp a baax islaam du def lu bon ah waxi ko góori soose yooyu kon ne leen ne leen takk meer baaxul ne leen suñu sang bi ni mu takkee woon Xadija waxi ko góori soose yooyu demal wax leen ko dinañ la dóor bu ñu la dóoree ba pare nag nga xam ne feñ waane feñ ne dóor na la bul wax loolu ba pare te duñ ko def duñ nangoo takk jeeg de ñoom ñu ci bëri buñ takkee jeeg duñ nekk ku baax léegi suñ nekkee soo xamee ku kenn ku baax koo xam ne fay takk jeeg ba pare nobantee jeeg ba nekk ku baax moroom ña di ko ree naan ko ngaa ñàkk fay rek toog ci jeeg bi xamoo loolu mel ni ku duhut jullit mel ni ko xamul suñ sang bi storim naan ko sa mère bi nga toog ci moom nga ñàkk fayda man ngay wax naa comme Marie foofu may la paxa ko ma bëgg a takk nga naan la wax naa leen paxa ko ma bëgg a takk ngeen ne fa ne ma leen di naxala lan léegi laa ko yónnee message di ko di ko ne ko bi namm naa la ba muy ree mhm. mu ngi nii bëgguma ngeen gis nga taalam bi ah message yi gisoo turam fi bind king randu leen waay mu maal ko ma bugg a takk faal ko ma bugg a takk góor a gambien toogi leen sénégalais yi ma bëggoon a takk yëpp tardé ngeen ok guys maa ngi ñëw dem ku bëgg a jënd këpp yi maa leen di jaay bu leen fàtte beautiful soo buggee julli nga summi summi ko julli soo bëggee sang janaawa nga summi ko sang sa janaawa yéen jëkkër yi you know mhm. fay mel ni hmm? nga def ko nii hmm? yaa su ngeen buggee këpp yi rek ngeen bind ma julli gaa ngi ñëw sama nijaay ma yónnee audio weeru koor waa ngi ñëw julli gaa ngi ñëw su ngeen bëggee jënd yëpp maa leen di jaay ñu nëw anything lu ngeen bëgg rek jërëjëf fanaan leen jàmm ndeysaan bi neex na <laughs> bañ a neex wax naa ne fan ko ma ngeen ko demee caaxaan loolu dinaa ko caaxaanee moos it's not like bëgguma sëy de it's just su ma nit buggee may wax ak moom like su defee gara loo xam ne dafa tax ma xalaat ne kii du baax nekk ku baax si man dama ko dee bàyyi ma toog xaar keneen loolu moo tax sëy moom bo it's not like du ma dee jox nit chance it's just nekku ne ñu nga bugg ñu bugg la yëpp léegoo léeg ñoo ñoo dee mën a nekka yow si jaam loolu mooy dëgg bi léegoo léeg ni ki xam ne yenn jëf yi muy def yow di nga xam ne kii su ma sëyeeg moom dee def na si yow nag nga dem rek dugg si yàlla mun na laa dimbale mu dox waaye su la yàlla dimbale wut du dox because wanoon na la ko pare loolu rek moo tax nit ñi ma dee bugg léegoo léegi ma wax ak kenn ne ñëw ne leen xam naa ko ma bugg anden su ma gisee ma ragal ma bàyyi bot saa wu ma nit buggee dama leen ko man du ma wax ñaari nit ak benn benn yoon non so su ma leen ko ngeen mel ne di di ma sonnal moo tax ma leen ko wax fa ma bugg ngeen ba ma ngir yàlla xam na génn góor gu ma ko wax bu yàggu naan ma yow lu tax ngay wax ak kenn nit takkagud la nga war a wax ay nit te di seen góor ñooñ suñ xamoon jabar ju njaaloo ñooy mer de nga jox nit ki sa kàddu ne ko bugg naa la bugg nga ma bugg naa la I love you mu ne la waa ba pare ngay wax keneen mook njaaloo fañ xuure bàkkaar yi fañ xuute waaye bu tey yaa ngi bitiree nit ki wax nga ko ne ay I love mu ne la waaw te xóor na nga ko moom bu doon wax ak keneen du la neex man ak akama fiir man Ami Jóob ki may waxal nii bu ma xamoon ne mu ngi wax ak beneen jigéen tey ma dee ak maa fiir léegi man maa ngi yaakaar ne waxut ak ken for exemple ma woon ko ne ma ne waxuma kenn ba pare di wax ak keneen kon mooy ne maa ngi jàmbu loof bi léegi su ma takkee danaa jàmbu loof bi loof boo mënee di ko jàmbu ci commencement bi hmm? nga miin di def loo war ta def làqu ci commencement bi su waxee nga ne parce que takkagul ma su la takkee danga ko def parce que di seem nit ki la di seem yow la su la takkee danga làqu def lu bon la barki salaatu ya loof du caaxaan de ngay programme sa bopp bala nga see dugg xam ni ngay def ma la nga ba ko waaw waaye loo boo xam ne yaa ngi amee sa sa mind sa mind bi focus lu la neex def nga ne ngay dugg ci loof loof àndut ak lu la neex def ok guys maa ngi dem jërë ngeen jëf fan fanaan leen jàmm vidéo bi kum raw danaa ko def youtube subaa jàmm suma xëyee insha allah ok ngeen seeti ko foofu youtube link baa ci kaw vidéo bu leen raw dama ko fa dee def ok nit ñi gaañu yal na leen yàlla xari àjjana nit ñi ne ci problème ñu wax seeni mbir fii nii yépp yal na yàlla yombal problème bi ñun ñu des yal nañu yàlla may fan gu gudd gi yaram yàlla musal ñu ci problème ku feebar yàlla faj la waaye nga faj sa bopp na nga stay positif lekk-lekk yi baax si yaram tëdd nelaw te jàpp si yàlla déedéet génn jëf beneen yoon incha allah ami yàlla ah amin yaara bi ok fu ko ne mu ne ami xamoon take me little bit for what I'm going sorry maa war a dem wax ak sama nijaay I am very good in bed why you telling me you are in bed no one even asked you that and I know I've not even asked you are you okay or what, what doing why you telling me that and who you telling that to why you telling people in the live video that you are in bed like you're talking to your woman or something you're not well do you know that who even asks you that what the hell xoolal kii naan mu ngi tëdd ci lal bi ku ko laaj ndax mu ngi ci lal bi muy wax loolu nit ñi ew disgusting anyway good night bye <laughs> fa am ku may defanteer kuy wax naan xaw ma lan maa ngi ci lal bi ku ko laaj anyway guys jërë ngeen jëf bu beneen yoon incha allah bye <laughs> Mm.